si biir kay moom lavement dëgg la ah xaalo xaalo Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullah. siyaar naa leen nyap ñëpp ku si nekk si santam Dilan leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal jam di am jam dal jam dalondo jam si barki Seydina Muhammad fas yéene tambale waktan bi bismillahirrahmanirrahim bismillahi alhamdulillahi rabbil alamin de passer par les les événements moo tax ma ñëwaat rek dugg live nous leen kaa leen on va un peu essayer de se comprendre et on va un peu comprendre les choses nen expliquer wante voilà Ah wow Toi, na pour comprendre expliquer son morum. commencer d'abord donc on va développer petit à petit et on va venir au fur et à mesure de cette histoire quoi comprendre expliquer ce morum. Moi, je comprends rien voilà ceux qui comprennent là expliquer aux autres qui n'ont pas compris la si taxaw nekkul sax si biir barab bi ba ñëw doonul doonoo musulmaan dugg ci barab seen jumaa bi loolu na loolu amul fii nañ taxaw def seen vidéo wax seen wax def seen dëgg la kon nañu taalibe yëpp jot nga xam ne François Hélène Guèye mos sa dugg ci biir jumaa ji sa du wax na ni ku jullit sa doo fi dugg ci biir waaw dugg sax si biir barab bi képp ku dul jullit doo amul kenn même porte pour kii jugee ca àll ba ñëw doonul doonoo musulman dugg ci barab Sëñ Tuubaa loolu yëpp Diomaye nekkul kii na saxam kii na taxaw waaw dugg sax si biir barab bi képp ku dul jullit doo amul kenn même porte pour kii jugee ca àll ba ñëw doonu doonoo musulman di dugg ci barab seen jumaa loolu na ko nee na loolu amul fii nañ taxaw def seen vidéo wax seen wax def seen seen dugg ci biir jumaa ji te dugg wax na ni ku dul jullit sa doo fi dugg ci biir comme ni ma koy waxee rek. ku comprendre rek na expliquer moroomam mu daal di fas yéene ñëw dugg ci waxtaan bi tàmbalee waxtaan bi ñëw fas yéene jàkkaarloo def suñu point de presse ñun tamit après le président Ousmane Sonko waaye Ousmane Sonko je commence à aimer ce gars waaw ah, nee na dóor Om dor fayu samagay Ah, on ko fiya go wax moy lo la len dar dar la ko dor mu yek dor fayu voilà lagi nak comme ko tok ba leader dina len dor fayu voilà légui nak on va voir comment ça va marcher affaire bi moy lol de mais on continue d'abord dans nos petits moutons on arrive sur ce sujet après François ak sama ñuuxiti François, eh, eh, eh, ouais, mais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, non, mais Sénégal, tabaski, tout est possible, tous les conneries du monde, ouais, Sénégal c'est possible ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ko ouais, dès le départ da ngeen bëri foo bëri tappale mën a duul mën a kookoolu boo tax ku génn di reewantalu sax yeen lay yeb yenn lay ñëw si seen i bagage yooyu lay dugg parce que lu ko waral yéen a ko def yéen a ko def voilà Françoise Hélène nee na yaayoo day guux nit ñi waaw ci continuer rek tant dëgg commencé wu si dëgg tant que wu noo teg dëgg tant que commencé wu noo wax dëgg les choses là vont continuer toog leen di di ah yeneen fii nekk di saaga di protéger di kii voici les conneries yéen a nekk si nee naa leen dem leen gisagoo leen dara gisagoo leen dara bi ëllëg mbaam xuux lay àndaale billaahi beneen yoon suy ñëw dina leen andee sëri ca mbaam xuux waaw wow mbaam xuur kor ñaaña kor ñaaña xam nga comme ko mooy loolu bay faal yee dàqa lekk kor ñaaña laa lay tegal billaahi walaay bay faal ñoo la dàqa lekk kor ñaaña ay defe leen waaw moo taxit déglu ma rek déglu ma rek eh, moo ñoog ñoog ñoog Françoise ñoog Françoise bare goole ku gën a raw Françoise dina ñëw seen diine googu xaw ma maa ngi naan sa waaw seen diine gi xaw ma seen secte bi lu nekk dina ko muuroo xeetu mbaam bu nekk dina ko muuroo voilà voici les conséquences wax leen dëgg ngeen bañ ñite leen ngeen bañ topp leen nekk leen ay jaamu yàlla ngeen bañ voilà konaar bu rëcc doomu xaraam bu gën daa di ñëw yéen C'est là-bas où ça se passe. Posez-vous la question posez-vous la question Faut la le ñi di top di Saga Malakai. Faut que la nit du di du di saaga Faut que la nit du di du di saaga Faut que foofu tamit le chrétien yi di du di du di le nu mu la neexee wala di fen wala di ñëw di merde waaw parce que c'est le c'est c'est c'est la secte de la merde c'est la secte de la merde L'air là laa leen di tagal léegi nag moom su comme d'habitude rek ngeen daal di génnaat di saaga xam nga comme que mooy loolu man nee naa leen jamono ji nga différence yi may chose su ma leen di saaga dama leen di saaga si ginnaaw luy naqari seen i xool mais affaire de kilifa yi affaire de kii j' ai commencé à comprendre je connais comment j'avais fait mes choses da ngeen bëgg a saaga kaa leen ngeen saaga am ngeen lu ngeen di saaga billahi François dem ba si jumaa bi rusul sax tekkiwul croix am bi bàyyi ko gaale andil leen croix François daa ñëw njablu seen ndey yooyu ñëpp nekk seen seen prêtresse xam naa yaa toog leen foofu di wax histoire alalu àdduna moo leen jiital noo du alal ku nekk dina ñëw puub seen kaw ku nekk dina ñëw jàppee leen day ay mbaam yéen nag dof yi ngeen nekk si suuf di saagalu rek ak di saaga pendant ce temps seen baay ak seen maam yooyu nekk si kaw ñoom ñoo ngi lijjanti yeneen yëgul lijjanti wuñu soxlu xew waaw lan ban ban fit la Françoise am mu dem ba Sénégal xalaatu fa dara xalaatul leen amul leen lu muy def moom du nee bu bunu aji saar moo ko fa yóbbu woon kodaas affaire de Adji Sarr CODAS demul lijjanti bunu Adji Sarr bi lijjantiwul CODAS leeralul dara moom si boppam ba tey gisul Adji Sarr yaa ngi comprendre lu ko fa tax a dem moom ba tey gisu ko yaa ngi dégg lijjantiwul kaa yooyu noonu Sonko ngi noonu gën di wax damul génnee ñëw libéré doomu jàmbur bun bi feeñ non non waaw Touba jëm looloo ko yóbbu Sénégal dem dugg si biir ñëw nee noon noonu daa kaalaw kaala ra rajimam bi eh? kaalawu nee na danaa kaalaw kaalawu rajim ñëw taxaw waaw gisooy instant bu ko yaay booy bi di wax nee day jooy wal leen ma rongoñu François fexe leen ba mu paccal fa rongoñ fexe leen ba ngeen gis fa rongoñ su ngeen fa génnee rongoñ lu ngeen wax ma jox leen waaye François bëtam yi amatul rongoñ bëtam yi wow na koŋ koŋ koŋ koŋ François leen nag ay tax a jooy diw nit ñi dóor leen xolol dóor marto mooy tax jooy ay bët ay xolol te door ay rongoñu deret lay doon ay ñu deret lay doon françois bala mo meuna pej pejal mu xam ni que fii am na si wala dara luy gën ma leen ko wax ah to yaay kay naagam mi leen toog foofu nii comédie mbeleen meeru bi kok leen wala detecté maire bu ñëwoon naan da play del kal la waaye léeg-léeg mais Pandore la gaay ala à on a ka detecté gëndal leen ma photo maire bi gëndal leen ma maire bi on veut l'histoire de cette vieille là on veut la faire des petites sorties la ramener à la raison comme nous ko waxee rek sunu yaay di sommes, wala sunu yaay dem ba nek ki di jël bant balay diko sen la waxal comprendre voilà comme que des bobu da dem ba toll instant yi di jël euh, balay taxaw gaalem bi diko mballo diko di ci des bi di leen genn di leen toj des faut nous faut nous cibler ces gens de personnes faut nous les cibler woy moo ne ñëw taxaw nee na noonu yaayu day ñëw moom mooy moom mooy kuy ñëw taxaw ah saan lii de moom seen ah eh, Baay Faal yi ah, eh waaw seen gaale la de yéen a xam de waaw man man ngeen yëpp nee naa leen man ay laaj kese Moussa Camara ngeen yëpp El Hadj en tant que un El Hadj El Hadj Moussa Camara di laajte di leerlu si diine man ngeen yëpp ngeen may saaga di kii mais pendant ce temps chrétien ab Françoise ñëw voilà. Voilà, là, il n'y a pas de problème. Rien comprendre. Il n'y a pas de problème, quoi. Waouh, c'est comme ça. Le monde va en envers. Les musulmans sont même plus les bienvenus dans leur propre religion. Ne peuvent même plus poser des questions dans leur propre religion. Ne peuvent même plus s'éclaircir dans leur religion. Maintenant, eh, eh, c'est la porte vacante, quoi. Eh, ah oui, ah oui, voici les conséquences. Voici les conséquences. Ça <laughs> saaga leen saaga leen ba mu neex déggoo leen lu mu wax yuuxu leen wax leen kii détourné leen mais je vous l'ai dit depuis le premier jour nee naa leen yéen lu leen di koy won luy jàppanteeg yéen ak luy ak yéen du si wax c'est le temps nous on se on se bat avec vous avec le temps c'est le temps qui nous xoolal moo ñuy séparé c'est le temps qui nous juge yéen si la, si daggale ngeen ba coow li commencé boobu ba léegi yéen a ngi daggale daggale suur daggale suur daggale après daggale encore d'autres daggale daggale ngeen di def ba jeex parce que lu tax waaw àndoo leen ak dëgg seen lépp a salte ay duul kese la boobu ba léegi yéen a ngi si di daggale léegi nag daggale bi nag si la ngeen ko bëgg a nëbb si saaga di dem c'est votre problème c'est votre problème mais nit ñaa ngi toog di xool nit ñi dofa tunu de nit ñi fa tunu nit ñee ngi ak seen i xel ñoo seen i gët di xool di gis di xalaat di di daj déggoo lu leen wax de yee na sa des rek boobu ba léegi ñu nuy wax dara dañu si andi woo leen fi tontu firnde woo leen dara te dagala yi ñoo ngi accumulé wu si giga yi dagala yi di accumulé wu si giga yi un moment nag su ngeen nitewee da ngeen di taxawaat ngeen feggat seen bopp su ngeen nitewee da ngeen di taxawat nak encore ngeen segat sen bop xolat sen bop analyser bu baax quoi yeena ya, ngi comprendre mo geun ngeen nek fi ni di dof dof di jema jaay la con ki di tëb di dal neena la lu len nakari lu len nakari du si ñun ngeen koy si sen bir, la yeen sen bop ngeen tok xolat sen bir xolat toga, toogaay sen toga, toogaay wa mais nit ñi mëno la len tere wax rek nit ñi mëno la len xol ni gis di ragne di waxtaan mëno len ko vous y pouvez rien dara ngeen si mënul j'espère seulement ba François bi ñëw di leen seesi àndaale si six millions yi ah maanaam ni que sénégalais leen six millions yi jeex na yàgg na de six millions du xaalis de yaay de six jamono ji six millions du xaalis six millions yi jeex na de daay la nee naa leen les forces les linotes les gens obscurs yu nekk si ginnaawam yooyu noonu moom leen wala lijjanti te xam ñan waaye six millions 6 millions yi nu mu génnee sa d' abord kenn ko de 1 ba paré tamit 6 millions yi ku foo nekk 6 millions yaa ngi fu mu newoon ba tay so fa démé do fek 6 millions yi jeex 6 millions du dar jamono ji le monde est cher le monde ak affaire non dara dara tay nak 6 millions la ki nangam mu bëgg a ni que 6 millions de ça l'a ouvert tous les portes lolou la leen di naxé dé que nek na fi ngandi di star ni ay way Françoise mo am problème gis leen ma Françoise ya sonu Françoise est pour si gis me ma quoi lii pour si man la toute cette cette ménopause là hein non là parce que ça ce sont des plans ménopausés toute cette ménopause versée par terre comme ça là Hein? Lay, lay, la la doy na waar de doy na pour gis me, ma me, tout ce tralala et ce brouhaha quoi faux usage foutu qui mais c'est que le problème ça a saabu faute fóot Ça saabu beaucoup faute bopom. man da ma jombi sama mbokk muridi ananu tey ala ngeen quand c'est pour insulter vous êtes là seulement pour insulter les gens quand c'est pour qu'on vous pose des questions, ngeen toog si ginnaaw làqatu su ngeen defee seen musiba wala merde génn ci seen yoon ngeen làqatu du ngeen ñemee génn te yéen a ngi fi toog di seetaan yéen a ngi fi di xool nit ñi di déglu bu baax il faut être nu nga fair play il faut être des grands hommes il faut accepter un grand homme accepte les choses il faut venir et nous expliquer qu'est-ce qui se passe dans cette secte là ku mu neex jóge fële ñëw raconter seen mère wax naa leen ko dès le départ nee naa leen Françoise boobu muy woote Serigne Touba ko may loola ki nangam kii wax gi lu ko guddal ak lu ko gàttal su demee ba jaral ko loolu su demee ba topp ko foofu ba mu tollu ko foofu na tuub wala yéen mu yi dangeen ngeen koo laaj dara pour mu tuub wala daa am ay adiya yi sas yu ngeen ko sas mu diis wax gi c'est clair yéen am ngeen mission bëgg na leen bëgg boo xam ne nee na takk na leen topp na leen foofu lang na leen teg leen ko yéen seen mission ba ngeen góor góorgóorlu tuubal ko xamal ko yàlla nag def leen ko maam jaara def leen ko maam jaara wala Aïcha yeen a xam déggal Mamadou Ba nee na ko moom est-ce que mën na liir commentaire ba lu ma la aju moo la metti yow toogal rek ne bind bind toogal rek daa di ne tekk nga di comprendre suba ngay comprendre dégg nga c'est demain que tu vas comprendre ndax mën naa lire commentaire wala mënumaa liir commentaire léegi comme nu ma ko waxee rek Françoise moom dem na ba mu tollu ko foofu yow ñen ñoom moom génn na ñëw war na leen moom amuuram fu mu toll Vous na leen moom fu mu tollooke moo ngi koy taxaw di démontrer di ko yuuxu eh ba di ko déguisé woo yéen nag tamit nak, walu len gën gore walu leen gën gore de walu leen gën gore wal ngeen gore góorgóorlu tuubal ko c'est la moindre des choses que vous pouvez faire parce que nag fil la bët yem fii la nopp yam. voilà loolu c'est entre vous ak yéen waaw Ibou Ndiaye lépp xaj na si mën na ne nu seexal ko mu nekk la la relève de Aïda Diallo tout est possible tout est possible au Sénégal man du ma wax lenn loo xam ne ma si c'est au senegal so waxee dama naa la ok c'est possible y a pas de problème y a pas de problème parce que on est con à un niveau qu'on est capable de le rendre possible yaa ngi comprendre y a pas de problème c'est possible mën naa que la relève de Aïda Diallo Ya, a pas de problème mais c'est que nag ñoom foog nu jug nag nu commencé leeral nit ñi wax moo gën affaire gi mu di tok noonu rek di tourner Ya, moom bëgg na ko ba fu nekk muy taxaw di revendiquer nee na leen mu kenn mënu ko nag bañ voilà moo taxaw mbokk chrétien mi freiné wu ko ñoo ngi toog di ko dégg mbokk chrétien yaa ngi toog di ko seetaan moom teel na bopom. yaa ngi dégg déggoo doo ko dégg mu wax si prêtre yi doo ko dégg mu wax si pape yi yebu ñun layat yenn si boppam lay téye seeni yére lay sol seeni sëriñ lay génne taxaw na nee na la yéen la bëgg mais ku leen woote si mbëggeel ngeen wal koo gën a bëgg dem leen fekk ji ko dem leen ngeen dimbali ko mu tuub Françoise instant bi da leen woo Françoise elle est dans des problèmes te yéen murid yi amaana yéen a ko mën a dimbali d' abord yooyu comme dem leen ngeen xaar foofu na lijjanti ko parce que langal na leen ko depuis un moment langal na leen ko depuis un moment voilà léegi nak xawma na kurel gi la soxla xawma lek si la bëgg ngeen may ko way wala xaw ma léegi lu si ay ambition lu mu gëss ci Serigne Touba ba bëgg Serigne Touba boba su ngeen démé di ak mom boba dina leen ko expliquer mo xam de parce que xamaa ko fofu la jappé nek ya plus de mbam plus con yu koy mëna gëm and ak mom si affaire ami parce que yabul ñeneen ñi xamna ñeneen ñi dañoo yéewu moo affaire ami tanté na ko fépp tànte na fep mu doxut xamna naa ni que nag foofu nag la gis ni que moy dernier recours fi la mbam yu dof yi nek mbaam yi moom loo leen dëw nu jël mbaam yi garaawul mbaam yi moom tant que gaayee ngi noppi sëñ baa ngi naan ki amul problème xaaral ma dugg si mbaam yi nii ma sa ma ma ma sexal leen ma sexal leen tuuti rek xool amaana dineen ma boole wala dineen bàyyi ma war leen waaw léegi moom ngi doon di leen sexal les gars yi léegi mu sëgg mu war leen léegi mu war leen ah laa ilaaha illallaah pap amar an bëgg nga lu bon de Pape Amar Anne ah, nee leen may leen may leen ma Françoise Pape Omar Pape Pape Amar billaay loolu après nañ la jël si suuf su nekkee Françoise rek nga bëgg loolu mën nañ koo di dinañ dem waxtaan ak jëkkër gi lee parce que concubine la nekkaayal moom kenn takkagu ko voilà kenn takkagu ko loolu kay ñun du lay may Françoise ba pare jox la loo ko yoree voilà yow loolu garaawul non loolu duñ ko discuter du lay jox Françoise ba pare jox la loo ko yore te nag avertir la nag tamit boole naa la doo fekk dara doo fekk tous waaw kay comme ça waaj nekk suuf nu mu la wax noonu kooku tontu waaw doo fekk dara naa la teere Iba Mar sax doo ñaari pied gauche la nag waaw fekk dara waaw instant gii nii booy réseaux sociaux yëpp laal nañ ko ah mooy loolu noonu mais maanaam ni ko François rek Françoise rek nga bëgg Françoise rek moo la dese saa waay ñun ñun ñuy commencé di la ñaané parce que xam ne ni ko bëng nga lu bon billahi bëng nga lu bon waaw dëgg fa yàlla mais amna ay nit ñoo xamné ay dundol njabot la ay borom baax la amana ni ko abo bi malaka la leer na ma ni ab malaka la pap Amar Amar leer na ma ni ab malaka la waaw leer na ma ni que malaka la bo xamné ni que dafa ñew spécialement pour dimbali cette femme là quoi xam nga pour la laver wala affaire on sait jamais parce que genre Françoise yi moom ouf la ilaha illallah la sa keur rek de mais sa buntu keur so long su la ko ba mu taxaw sa buntu keur sa famille paréna toute ta dynastie foutue kooku non, ay gaaf la de genre yoy non sen yaay ba leen di jour Françoise sen yaay ba leen di jour du ndon jël sen baaraam bi di lambalé sen ginaaw yi di xéñ ay doomu ouma len ay doomu umu doom yoo xam ne ni ko suñu nu bokk mu kii Françoise xoolal rek ba mu commencé kiyam bi combat bi ba léegi ñu mu àndal ñëpp ñu am problème nu mu àndal ñëpp euh, euh, Assane Assane bu muy wax sax ba mu àndeek moom Assane Diouf kaso bi mais Françoise ba mu demee la Assane Diouf génn Françoise fu mu dem coow am Françoise fu mu dem mooy loolu noonu nee naa la wuu ay gaaf la moom yaayam ba mu doon wasin ñu naan madame Poussé ki nangam da jël loxo bi di laal ginnaaw bi xencu na di moo tax Ouma la Ouma loo mboole Idrissa Seck ba mu ne du mus a gañe moo tax gisoo muy tourné fu mu dem mu kalaate groupement bu mu bokk ñaata organisation la créé ñaata affaire la kii ban moo si dox bu si avancé ay jubbanti ay kii ki nangam gi bu nekk dégg nañ ko fi bu nekk moo ko fi créé ay record cinq mois ci mois la ñuy am maximum les plus grands records cinq mois six mois coow génn connasse moo mujjee tout dernièrement toujours même coow nag mooy tas moo tas panelam yépp ay góor jigéen yuy dem nettali fee moom mu dem làqatoog gars yi fële créer ay faux profile saaga ñee saaga bi jolli gars yi wax après de secret yi génn ñoom ñëpp ñu jël seen data weer ko ci marché bi ñoom ñëpp ñu jël seen taat ak seen ndey ak yëpp weer ko si man seen biir nag balaa noo génn saagawaat nit ñi toujours noonu lay demee ñooy créer seen affaire dem saaga nit ñi wëlbatiku saagante waat seen bopp tasaat génn dem toog fene saagante wëlbatiku ak ñëwaat àndaat wala ñee dem fële de toujours la même chose créer nañ noonu kaatu seeg buñ fi nekkee ba amul benn bu dox léegi un moment on fait bilan ñu ne leen Françoise ay gaaf Françoise ay gaaf moom la fait ko muy wax si combat Sénégal bi ni sax moo tax combat bi du sotti tant que noqunu ko mu noppi si coow bi mu noppi si combat bi ñun lu nuy lijjanti duñ ko am parce que gémmiñam bii di ñëw di ko kii mooy problème bi. moom ba si propre life fa moo ngi ni doxul fépp la tatone sooy waxee mu taxaw di duul ah prof EPS nee naa leen je défie je défie tout le monde naa leen ni que day duul amul diplôme. Françoise amul diplôme na ko génnee ban prof EPS day duul voilà man je vais poser mon pied sur ce point CAA day duul ah come on ñun ñu am ay tante yu def sport déggoo lu wax ñun dañoo amoon ay tante yu def sport am ay tante yoo xam ne ñii def nañ basket ñii def nañ judo ñii def nañ kii tey tey ñoo ngi ay xolal cinquante ans ñi mais soo leen xoolee su la nekk kii defoon na sport ba muy nekk booy da nga woy waa parce que le corps ne ment pas un corps qui a subi du sport ba muy nekk ndaw su màggee lu mu jël poids lu mu changé changé su doxee su defee dégagement da ngay xam ni que kii yaramam bàyyiwu ko woon ba mu nekkee ndaw Françoise day duul Françoise day fen day fen prof de sport ban année fan va voovu ki nangam année bu muy wax va prof de sport on est là nous la génération nous sommes là léegi ñan ñoo jàng moom bu mu fi nekkee di live boobu ba léegi prof de sport prof de sport image wër na Sénégal wër fu ne ñëpp gis nañ da ngeen mus a dégg kenn dugg daal ko ne madame xàmmee naa kii wala kii nang kii moo nekkoon sama prof de sport ay kii nangam na nañ ko génnee ay prof de sport moo gën a yomb dem prof de sport prof de sport encore mën na leen jarul diplôme jarul diplôme encore prof de sport sooy dem di ko defi ji bokkul ak enseignant fu muy dem diplôme yi muy soxla bokkul prof de sport sa physique la nga daa di dem nu defal la benn genre concours formation même pas six mois nga daw nga def yenn exercice yi nga prouver ko nu jël la nu def la prof de sport comme nous ñuy souvent police dem école de police wala qui nangam nga tourner nous jox la des temps def lolo comme mu ko roulade carpe, demi carpe demi tour qui est qui nangam tourner nous xam nga am idée générale gymnastique prof de sport tu n'as pas besoin ay bac ay BFM ay affaire si tu as été un sportif dans ta jeunesse tu peux être prof de sport Tu n'as pas besoin de diplôme. elle prend qui pour des cons Les gars, lan la bëgg comme toujours moi comme nous le lëree ce con là mon moi, euh, mon frère roule air nek fi di mais euh, c'est faux au Sénégal sous le colonne une famille chrétienne Sous le trompé c'est français c'est parce que tu es con les familles chrétiennes au Sénégal ils ont au moins lol nangul ni que ils ont l'habitude de parler français depuis le bas âge dans leur famille, même s'ils sont au Sénégal. quand tu rentres dans les familles chrétiennes, ils sont bons en français parce que même dans la maison, ils sont en train de parler en français. Ils pratiquent ce truc. Français, là, pratique le rec. Pratique. Pratique. So du ko pratique le pratique le rek. Françoise nous nous des fait Jang Ken. ëpp là Belle Latène nee na sport bi mooy Zambaleer sportam dëgg-dëgg mooy Zambaleer waxuma la Zambaleer de waaye Zamba mi instant yi sax mënatu koo yëkkati ngir ngir diis ñaari pied gauche ñaari pied gauche la yor Zamba yi kay taay nii nee na am na nee duñ ko koy yëkkatil duñ ko koy yëkkatil nan waxante dëgg tey suñu jugee nag. gars yi nekk fi ba nga fay tourner di am ay affaire yu ñuy expliquer di waxee di kii ba na leen yéen cette Françoise yéen muriti yéen yéen wala jug dem li ji loolu Françoise def na leen clin d'œil bëgg na leen lool am na seen cofeel am na fu mu toll ak yéen kon bokk nag léegi yéen wala dem li ko voilà da dem xool ndax da ngeen koy def ab maam jaara wala da ngeen koy def ab leneen loolooy wax gi léegi nag moom léegi nag moom wax gi moom mooy instant nous ñun lan problème lan nay problème ah le le le chef de l'opposition Wow. le chef de l'opposition le président je ne sais pas de Pastif, il a fait un discours tout à l'heure là ah, ah, ah discours gee man voilà, il n'a qu'à continuer comme ça. Il va avoir des lions, il va avoir des fous qui vont se mettre dehors. On va venir mourir pour lui. Même pas pour lui, mais on va mourir pour cette cause. Voilà, ma loolu laa gëm de waaw leader Il dëgër des dëgër fit day wax jël ay responsabilités wax wax gi faut pas suivre le nit ñi di wax wala gars yi dit... di eh door fayu oui dor fayu Waouh... waaw depuis que je l'ai dit ah boy yow kii ki nangam non. tooñunu dugguwunu si leneen ak di jëntiwunu kenn mais nag ku nu bëgg a ku nu bëgg a xañ suñu wala ku nu bëgg xañ nu dund nu teegal solu bon point barre door fayu waaye il a raison door fayu on va faire révolution mais ku nu si fekk bëgg noo xañ suñu révolution bëgg noo xañ wax bëgg noo xañ leneen nu waaw nu xañ la yow tamit sa life point barre wax gi jeex waaye il commence à avoir des comportements yoo xam d'un grand leader loolu leen gëm loolu leen gëm déggoo lu nu wax de léegi nag wax ki moom ah il a dit de nee les deux ans à venir ça va être chaud il a raison ku nekk na wajal bopom te gànnaayu bopom. il a raison lu fa dafa deug la de Macky Sall imbécile la ñu and ak ñom. ak yeneen mbaam yu nekk si ruq bi yëpp di wax ay imbécile lañ jàmm Sénégal taxu leen jug seen poche man je l'ai dit maintes fois nee naa leen ko fii maki Sall day teg troisième mandat ba ma koy wax gars yi dañuy ne nit ñi ne ma ah, ma ne leen bàyyi c'est pas ah, une histoire de pacifique de dugg na fii de génn na fii la politique c'est un truc sournois gars yi ne ma ne leen eh, Macky Sall day teg troisième mandat bi pour lan pour pouvoir dégager et sauver son cul moom ak nit ñi mu àndal mu yollee ko loolu lépp mooy tax mu taal dëkk bi si bakkenu nit ñi si life nit ñi la kay mën a tegee ñaari solution mooy am te am na beneen solution bi ko Sonko sànq génnee na ko mooy day andi désordre daal di ne léegi moom mënatul dem dëkk bi daa am désordre état d'urgence état d'urgence mon mu ñëw toog d'aller éliminer assemblée nationale éliminer affaire yi ñëw c'est possible lu parce que ñam na il a fait déjà un test jamono yee passé ba corona bi di commencé ba mu récupérer affaire yëpp récupérer ko en comme une semaine dañ ko ko jox lépp mu c'était un test il sait que maintenant mbari ils sont capables de le faire donc là nous sommes dans un point boo xam deux poids deux mesures Macky va foutre le bordel parce que nous du bëgg nu gagné ko de de de de façon normale pour que Mouala voilà def passation de service balaa dem parce que si des passation de service si on ko normalement mu war passation de service ça va amener tout un bordel il sera obligé de rendre compte au futur président bi il va lui donner le livre il va lui expliquer les choses avant de pouvoir s'en aller et là ça va faire un problème parce que pourquoi le gars il n'a rien foutu il a bouffé beaucoup d'argent et il a laissé beaucoup de dettes et que ça la seule chose qui va aider moi, une fois que mouraou, raw sori nit donc la façon de le faire moi, lan foutre le bordel nit ni xuloo nit ni comme ça sénégalais d'autres nous peuvent dul Nous comme Ablaye Wad. gars yi di ne la su ko le mu ne ma dem gars yi que dem France jox asile une fois que mu France jox asile mu c'est fini. Nous n'avons pas su demee nag ba président bi commencé à liggéey si nag lay xool la gis problème yi mais ñun pour nous d'accord, ji ko dem jàpp ji ça va être encore tout un autre système tout un autre procédure et tout un autre un moment sénégalais yi ñooy xool daal et il a amené nos milliards comme ça point wax gi jeex mais s'ils sont pas la grande porte c'est égal à rendre compte passation de service très télévisé une semaine il y a le nouveau président da ngeen di toog nga koy passé jox affaire yi diko expliquer diko jox cahier yi jox bulletin diko ministère bu nek nu mu ça c'est des problèmes c'est des problèmes pour Macky Si nous avons que presque 10 ans de corruption et de vol qu'est-ce qu'il va expliquer qu'est-ce qu'il va expliquer donc Macky Sall va foutre le bordel Il va foutre le bordel pour juste pouvoir s'échapper. Mohamed Ndiabotom, ça c'est un truc bon comme Sénégalais, vous pouvez dire, me tourne de deux après. Yanni Naxobop, c'est ce qui va se passer. Yanni Bélana Wadjal Senbop. Du lente wax nga ko de ko soxor la non ku la bëgg mo la nan wajalal sa bop sangul defaral préparer wu parce que néné le mbam bi ni suñu bëggoon du fi def 10 ans te liggéeyul dara di xaar ba dernier année di nu jéema guux di nu jéema guux Il va foutre le pays, que, le, le, pays en feu, que tout le monde se prépare. On doit se préparer seulement pour que s'il fout le feu, le feu soit orienté. Nous bañ Nous tas ko Nous nit mu Nous Nous nous Nous lu leer laa leen di wax fii Macky Sall lu mu yollee moom lay wut nu mu yollee ko sans rendre compte loolu suñ ko nangoo du ñuy ñàkk fayda Macky Sall walul échec walul sax génn Sénégal après son mandat Macky Sall doit le dernier président même à finir un mandat équiparé en exil on doit prendre leçon lan mooy ndey nekk si dëkk ne yow da ngaa dëkk bi liggéey dëkk bi nekk président wu dëkk bi dix ans quinze ans bëgg pare eh, wàcc sa mandat dem beneen dëkk dem toog fa lekk léegi sa sa sa sa retraite foofu noonu lan mooy loolu luy loolu tey da ngeen gis Obama ba mu wàccee fan la dem eh, Obama ngi fii états lu tax demul retraite Kenya Obama ngi fii états Bush a ngi fii États-Unis Clinton a ngi fii États-Unis mais ñun suñuy président ngay fal ñu ne dañoo bëgg dëkk bi suñuy ñëw toog dëkk bi ñu wax wax seeni affaire ñu ñëw fal leen ñu daal di pare suñu paree seen mandat génn jël xaalis suñu sàcc ci dëkk bi def affaire yi def yëpp daal di génn dem def dem dem retraite feneen ñun ñu toog di seetaan lool mu tegu si lan. du ko wala bañ Macky Sall doit être xam nga. parfait pour ça ñu tenc ko si dëkk bi ubbil ko kaw xolal ubbil ko waaw kaso ubbil ko cour juge ndeyam tëj ndeyam si biir kaso bi tëj ko si biir kaso bi pour que les autres politiciens apprennent et ça les sert de leçon koo fi joxati di réew wala teg ko fi il va bien réfléchir <coughs> Macky Sall wala tànc walul génn même su rawalee xoolal garaawul na rawale askanam na rawale njabootam y a pas de problème ñun falunu njaboot bi moom moo leen andi si sàcc bi moom moo leen si boole moom moo nekk sàcc bu mag bi àndaale ay sàcc yu ndaw sàcc yu ndaw yooyu noonu ñun amuñoo ak ñoom problème seen reewaande rek mooy sunu problème mais ñun sàcc bu mag bi la ñuy waxal mooy Macky Macky Sall si boppam mooy sàcc bu mag bi moom leen ñuy jàpp moom la ñuy jàpp téye ko il va nous rendre compte mais comme ma ko waxee rek ñun moom mbootu naa féq bi mbootu naa féq bi moo nu topp mbootu naa féq yi moo nu topp daam ay naa féq yoo xam ne ni comme noo waxee tant que jugunu rek ba commencé wax dëgg comme toujours nu ma ko waxee nu commencé dëggu teg dëgg te jiital dëgg Sénégal du am lu ñuy xeex mënunoo xeex dara parce que lan xeexu par par loo lay doon te loolu noon lan moo ko waral mooy affaire de tarixa yeeg affaire de secticisme yu fi gars yi àndeeg ak jéem a bëgg a jiital naan diw jaamu diw diw buuru diw diw kii kii ka seen kalante yëpp reewande yooyu noonu moo tax dëkk bi du avancé parce que tey ji nii nee naa la mënoo nekk taalibe mëno nek jam wala nga farsi sen scepticisme yoy nonu ba paré mëna att deug mënul né kuy att deug du far kuy att deug day neutre yow mëno far ba paré mëna att deug wala ngi toujours sa att si ñoom suñ ko dégloo day far da ngay att jëmele sa tarixa wala att jëmele sa sëriñ wala att jëmele yow suñu gëm té loolu nak kan mo la né yow moy bu jaar yow parce que yow si sa gëm-gëm nga ko tek mo tax toujours mëna ñu xit wala walu fal ñu xit wala nu ko fal képp ku nekk si tarixa walul falu Nous wala voté loi boobu képp ku nekk tarixa walul la constitution walul la affaire di que comprendre maintenant des personnes neutres parce que le Sénégal n'est pas un pays islamique c'est un pays laïque on a le pays là avec des chrétiens des musulmans des athées des il tout mélangé dans le pays léegi nag si on prend toujours des responsabilités et qu'on les donne à une partie l'autre partie va toujours se trouver dans une position bon comme ne ni que et parce que lu tax ñii nii ñëw suñu taxawé daa ne ñu ay mourid leen ay mourid leen ay mi sacc katu dëkk bi yëpp ay mourid leen nguur bi yop ay murit leen sacc leen lu nu sàcc ko fofu lu nu détourné ko fofu so toogee léegi mourid yo ngay dégg naa ñu ñoo am alal ñoo fi tek ñoo def li dajalé leen normal su nekké ñëpp ay sacc leen ñi ñu nu dénk dëkk bi ñëpp si la jug ay sacc nu dénk leen mënu no fexé ba dëkk bi avancé mais yeen seen affaire di avancé te rousseau leen yéen a ngi taxaw ko ndamoo y problème y a un problème ay nit yo xamné que ñun ñëpp daf no fii leen nu fekk démb ñoom ba ñuy campagne dañ doon loué nit ñi ñoo leen doon koloo koloo wal ñom lu ñuy campagne nu falu yoré fi ay immeuble fu né di maye ay souf di maye ay kër di maye ay 4 4 même pas un an deux ans ñun tamit nak kamone à un moment dof nu ba foofu dof nu ba foofu y a des choses yo xamné ni que il faut être juste réaliste faut réaliste quand même nit wala kon kon kon ba à ce point Sénégal nit yu doon loué daaw ñoo mën a capable ren may la kër may la oto xolo jox la dix millions jox la dix millions xolo te loolu tuuti na si ginnaaw la nga fenal leen seen ndey wala nga ñëw fenal leen seen baay saa waay nee na ma yow malien nga wala sénégalais dama laaj ko sa wasila su amee xam-xam sa wasila su amee xam-xam dina xam man lan laa yéen yéenay borom xam-xam yi kay su ngeen xoolee ni xam ngeen nit kuy dem safara xam nit ku alagu nit ku am diine nit ku dem fa yàlla nit ku sëñ bi ñaanal ak nit ku sëñ bi ñaanalul nit ku ndey ba ndey yi sax nu leen juree nit ku ndeyam def nii nit ku ndeyam jaarne yéen loolu yëpp xam ngeen ko si comme kay war ngeen a xam man lan laa loolu jaru ngeen laajte toog de ah kii nangam yéen kay continuer leen rek di wax. xam nga continuer leen di def seen di di yëngal pétaaw yi voilà comme que yenn ay pétaaw ngeen yor di ko bouger continuer leen di yëngal seen i pétaaw c'est tout voilà mais ba yow malien ngaak sénégalais ngaak guinéen ngaak euh, éthiopien ngaak nairobien ki nangam loolu lépp amalu nu njëriñ wax gi moo nu amal njëriñ voilà ndax diine malien la ndax diine kii la wala nangam ndax léegi politique bi tamit politique sénégalais la ndax politique malien la wala guinéen la point léegi nag la reste nag moom ça revient toujours au cas du racisme bu may wax rek soo demee bay toog ba nga am ay problème mu égo ki problème personnalité yaa ngi delluwaat si jamonowu racisme bi rek xaj sax moo la gën parce que xaj moom xam nga moom du xool fu muy kii naa moom ku ko bëgg sax mu jaar ànd ak yow bëgg la mooy loolu quoi. yaa ngi dégg lu leen jéem lu leen def problème ñun defuñu problème diw lii la diw lee la diw lee la ñun loolu c'est pas ñun problème bi du diw diw lu mu doon non non problème bi wax gi la wax gu posé wu. ak fu nu jëm fan la ak affaire yi lan la loolay problème bi voilà yéen nag problème diw la te diw yooyu noonu ngeen di wax su suñu ñëwee ne leen diw nan la ngeen daw su suñu ñëwee laaj leen diw bi nu mu fa demee ngeen daw ngeen nekk fii di tourner ah na nite waay na nite noonu ah. na na nite quoi man lu ma leen wax dafa clair fii nekk nu fi naan déedéet waaw kii amul li, amul diw deful li, diw gennul si lii diw li jëntul nous on n'est pas dans ça ñu on dit seulement na leer na leer kaa lay ngeen teg ngeen démontré voilà na leer comme nag sama gaay lu ma leen wax rek man moo si nekk lu ma wax rek moo si nekk jamono ji mooy loolu fu nu toll danoo toll si loo xam na ni ko ñu koy teg mu dafa wala clair parce que ñu koy déglu dofatunu ñu koy déglu am nañ jot ñu koy déglu encore am nañ moyen yuñ ko vérifier donc fu ñu toll fii nii wax gi taxawaay gi doxale ni ak lépp dafa wala clair amatul ay affaire de waxu dof wala ay affaire de ñëw nii rek junj bëgg dem toog nit ñëpp ñëw topp si mel ni ay ay ma riirandoo wala ay vague yoo xam ne ni ko mooy loolu amul loolu amul loolu soo nu nee jant gaa ngi nii da nuy wala mën a wan fan la jant gi féete expliqué nu noo ko gis foofu leen toll ñun lu leen wax dafa clair man dama nekk si diggante mën naa ne ñaar ba ñetti affaire benn bi bu ko jiitu te ko umb Je lépp moi, côté tëj Sénégal moi Sénégal point moi Sénégal rek moi le vert le jaune le rouge Sénégal avant tout lolou su au ko Il y a pas de discrimination xadi Sénégal yi sax duñ say bok Garabi, ma garab yi sous duñ say bok Sénégal len wax le vert le jaune le rouge ça ça concerne tout le monde donc ñun avec affaire à amul discrimination ñaar nu ñëw ne la ñun yàlla point yónnante gi point yaa ngi comprendre yàlla ak yónnante gi point ñetteel nag ñu ne leen suñu ndey ak suñu baay point yaa ngi comprendre ñun si yooyu la ñuy dox doxunu si ay affaire de diw mooy buuru diw diw fii la ñuy raamee diw fee la ñuy toog wala ki lañuy ñuy tagal ko ay bayam wala tagal ko ay mamam ñun doxunu si lolu yéen lañuy comprendre ñun doxunu ci ay affaire de diw diw diw diw diw diw non non ñun am nañ ñu ñuy jaamu ba paré su dalee jaamu jaamu su dalee su déssé du dess ba dul jaamu rek aduna ñun duñ fi jaamu nit duñ fi jaamu nit kenn lañuy jaamu muy yalla sunu borom yonent gi sax jaamuwuñu ko yonent gi no top ci ay ndigalam jaamuwuñu ko yalla la ñuy jaamu wajur jaamu jaamuwuñu len du len di wormal est ce lolu meuna mën na dugg si bopp nañ ñun gëmuñu ay affaire de nek fi nan diw mooy dugal diw aljana manam sallallahu alaihi wasallam bu andi diine bi leralep wone du dugal kenn aljana donc waxatuma la ak nit koo xam ne nee moom mooy dugal diw diw diw wala diw aajana ñun gëmuñu loolu ñun suñuy jëf moo ñuy dugal aajana ku liggéeyal doo dugg aajana ñun si yooyu la ñuy dox utunu ay baay ñun am nañ suñuy baay parce que xam nañ suñuy baay suñuy baay ba nu juree jox nañ nu seeni sant donc ñun xam nañ fu nuy bokk au moins suñu amuloon sant ñu ne waaw suñu amuloon sant nu ne waaw mais ñun xam nañ suñuy baay xam nañ suñuy ndey léegi nag le reste nag mooy lool utunu baay utunu ndey léegi le reste ma nu ñuy def ba yëkkati leen point barre raflé wu nu baay am nañ ay nijaay am nañ ay tàntaaki bàjjen déggoo lu ma mooy loolu donc un il faut un peu vous réveiller quoi te ngeen nekk nit yéen ñi comprendre jéem a nekk nit te yeew man wax gi ma leen wax mooy instant gi nii Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne ni ko jaxasoo na te jaxasoo bi yëpp lan moo ko waral ay bëgg-bëgg nit bëgg-bëgg nit yooyu noonu nag soo demee ba nga nar a jaxase nit si ay bëgg-bëgg war ngaa mën a ñëw taxaw nga leeralal nit ki say bëgg-bëgg lan la bëgg-bëgg nit yooyu noonu nag tey jii nii ñoom bëgg neen mais xamuñu ko mënuñu koo leeral mënuñu see wax seeni bëgg-bëgg rek leen jàpp yoo xam ne dara mënuñu ko see wax mënuñu ko selee parce que ñoom daal na si ñëpp ànd ak ñoom àdduna nag du doxee noonu àdduna du doxee noonu voilà léegi nag fu ñu toll tey jii nii mooy wax gi mooy benn bi premier bi si côté kilifa diine yi deuxième bi si côté politicien yi troisième bi si côté population bi population bi ñoo toog di seetaan loo xam ne muy raam di dugg si di ñëw si ñoom parce que lu tax population bi ñoo fi nekk dooleel kilifa diine yi ba pare en même temps bëgg dooleel politiciens yi léegi moo moo tax ma ne leen benn dëkk ngeen bëgg koo jël teg ko si diggante ñaari puissance wala ñaari affaires yu wuute ñaari kii moo andi problème bi yëpp moo andi lii lépp kenn xamul dëkk bi léegi ñuy jiiteeg ñu jiitewul ñu yore kàddu ñu yorul kàddu ñuy taxawal ak ñu taxawalul ñu gën kenn xamul chéri maa xarit waa day dugg rek gën ci ay yeneen gàmm moom chéri maa xarit may ma jàmm way da ngay comprendre chéri ma xali wal ma yor man waay ya tay genre affaire yi nga def Il y a ci affaire dip dip dip dip dip ma commencé say wax nu saga sama nday gaay di waaf quoi ñu comprendre lolu quoi fa commencé wax comme nu ma degré degré ils ont pas la compréhension lu l'idée générale xam nga et l'analyse générale non non ñom à commencer détraqué rek

moom fu sori fu ma yóbbu mais suñ ko fi génnee waatee day bokk si ay xeetu shirk xeetu shirk yu Serigne Touba bind ay xeetu shirk yu mu def parce que moo ngi si xasaay di voilà lii nga wax ni moo ngi si xasaay di foog ma toog ma ko mais moo ngi si passage am na passage bu mu nekk boo xam ne foofu la Serigne Touba bind ne moom du dee du faatu ngir moo sàq asamaan moo sàq suuf su ma jumul maa ngi coupure bi maa ngi moom fenn sama téléphone su je si je fais attention maa ngi moom fenn sama téléphone. mais comme ni rek si tu essaies de euh, euh, de de de traduire ça et de partir dinañ la ko yóbbul si ay non misaal la xam nga seen affaire de réewante yooyu misaal la wala daa laaj dégg-déggin fu sëñ bi doon waxee déggoo ko yaa ngi comprendre waaw fu sëñ bi doon waxee déggoo ko waa yow déggoo wax gi da nga kaa fii la waxee ñoom ñoo koy analyser te wax gi clair na yaa ngi comprendre. boobu tombé ne Serigne Touba dem Gabon ba ñëw toog commencé di bind ay bagaasam xam nga nekk say affaire am moo tax am na benn jour live naa fi expliqué leen ne leen Serigne Touba lu mu bind lépp balaa moo dem Gabon foofu noonu soo demee soo ko liiree di fa dégg wax yoo xam ne ni que dina féex sa xol di nga nekk kii c'était un révolutionnaire xam nga c'était un vrai mbindaanu yonente gi moo ngi doon topp islam ak nangam di ñu mais ba mu demee Gabon ba ñëw majorité lu mu bind saa waay moo tax ñuy nëbb nee naa la soo amulee xool dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg soo ko liiree di nga ko liir ba si ay parti yoo xam ne ni que danga nga naan non non lii mënul ta nekk di ku bind lii moo bind lii ku bind lii nii su bindee lii mooy delluwaat na si ay tànkam te lekkat na ay kàddoom yaa ngi comprendre moo tax nag ñoom nu bëri la nuy nëbb ah yii la ñuy liir bii la du liir bii la ñuy xool ay génn na fii kii teg waaw nu tànn si nag ñu def seen i affaire génne di si politique ñoom ñoo xam lu ñuy def ñoom xam na lu ñuy def mais lu wóor ba wóor mooy facteur temps dafa am. lu naan facteur temps nañ doxal rek tout devient clair avec le temps loo làqu làqatu lu nu ko gars nëbb nëbb lu gars yi tunu le temps yi arrivé gis nga moo ngi génn les choses sort si ruq yi bagage yaa ngi génn nit ñee siy jàpp nit ñaa ngi koy jàllale ni ñee ngi siy waxtaan c'est la moment c'est le moment dina génn de billaahi dina génn waaw yaa Bachir Ba sa jox na leen ko imam Bachir Ba moo ngi noonu nee na leen moo ngi si xaatimatul munal munal jiyaati xaatimatul munal jiyaati waaw kon boo ku am xasaayit boobu noonu wala ku mën a gis xasaayit boobu xaadimatul minal jiyaati nga dem jël ko nga jëm koo jàng nga lii soo ko mënee firi baax na soo ko mënul firi nga xool ku la ko firil nga daa di dem xam nga nga daal di ko firil sa bopp xam nga dadi comprendre comprendre qui lan mo nek ci affaire non noonu quoi pour nga dadi meuna a comprendre euh, yon comme ni waxe rek yone Serigne Touba bi loolu mom la concerné ñom sen yone bobu ni wax ñom la concerné Serigne Touba lu mu liggéey lu mu def c'était son travail à mom en tant que un un musulman wala ay qui et un être humain il a fait ses fautes il a fait ses lacunes il a fait aussi ses bonnes choses. Il y a un compas, comme tout un chacun. Nous On fait des bonnes choses, on fait des mauvaises choses et on fait des trucs. C'est juste un point. Bounini pas beaucoup politique et profiter, créer des choses. C'est tout. Parce que nous, il y a beaucoup de choses ça se démenti. So demee ba ñu ne la Serigne Touba mo la ne su ngeen démé ba gisatoo leen ma ngeen ci si yi di ñom nu dem ba gisatuñu ko nu jàpp si leneen y' a un premier démenti yaa ngi comprendre am na ay yi Serigne Touba nee na leen carrément. ku wàccoog julli wàccoog woor wàccoog ki génn nga si xeetam ñoom ñu ñëw ni naa leen Serigne Touba xaw ma kan maam Seera Fall ki moom moo teree maam Seera Fall woor moo ko teree julli moo ko teree joxe asaka moo ko tere yaa trop de contradictoire si seen i wax si ginnaaw lu Serigne Touba waxoon ñoom ñu ne moom la waxoon après tey mu neex leen nu te nu tekkiwee ko neneen wala nu firee ko feneen ba pare gën di saaga nit ñi gën di saaga nit ñi c'est ça problème voilà c'est ça mais c'était en bref c'était en bref c'était en bref parce que quand je me souvent genre affaire yu <coughs> <coughs> comme ça. koy j'aime pas beaucoup y discuter parce que nous, ma koy wax dit les vrais dit ñoom ñoo ngi si biir di seetaan comme d'habitude nu may waxee ñoom doo leen dégg ñuy saaga di wax ay affaire di ñuy déglu parce que xam nañ fu may waxee lu may wax ak lu may lijjanti ñoom lu may xaar moom la ñuy xaar voilà lu ñëpp di xaar moom la ñuy xaar parce que ñoom tamit seen biir am nañ ay lënd parce que nitu diine nit koo xam ne daa bëgg diine wala day gëstu nit ku diine day bëgg day bëgg diine day gëstu si diine mais nit ku dem ba toog ba tëj boppam ba foog na ni que matal na diine toog kooku nit ko alagu la nit ko alagu parce que soo demee ba nga xam ne que diine dafa yaatu diine dafa rëy diine dafa bëri bàyyi da ngay xamni ko mëno jang lepp mëno xam lepp da ngay jang lo si mën ba bis bu ngay dé donc chaque jour si diine jang la chaque jour da ngay jang lu bees si diine imam yi sax la la wax chaque jour nu jang lu bees si diine chaque jour nu gis lu si alquran loo xamné ko moy lool yow nga ñëw nak nga daal di buux lepp tecc tëj ñëw toog jàpp sa ben affaire gëm ko forcément japp ko téy ko sa bop ne loolu mo am que légui yow ñu ci dess ñëpp suñu ñëwee nonu lañ koy topé loolu alku la loolu mo daal muridi loolu moo daan Mouride moo tax nag souvent de temps en temps rek def kii bi affaire boobu noonu tëj mais comme tey moom sama live lu ko andi woon pour faire tout en général laal si Mouride yi wax si Macky Sall yee leen si Macky Sall ne leen ni que ku nekk na waajal boppam ko wax googu noonu leen di wax souvent ngeen di mer di gis-gis seen bopp naan Sénégal du tàkk ak Sénégal dina tàkk ak du kii waajal leen seen bopp moo gën wóor te rester prêt te xam ni que Sénégal dina tàkk. parce que Macky Sall dina pour essayer de dégager Macky Sall dina pour essayer de dégager Dino Kotal pour mën a yolleeku bañ rendre compte bañ wax ak donc loolu bu leen sonal te du tax dina tàq kilifa diine yooyu ngeen di wax ñooñ noonu tok, walon atte dëgg di gis musiba di tàmbale nu wala jug wax ko dès le départ du nu wax parce que lu tax du leen ñoom ñëpp leen koo romp ñoom ñooy toog di seetaan yi ñuy xaar nag ba deret tuur ba nit ñi nekk si mbedd bi rente bi commencé ñuy soog a génn di naan dañuy am lu ñuy expliqué. jamais nga dégg kilifa diine yi jug jël seeni i matuwaay suy raam di ñëw jamais jamais. tey jii nii. comme nu ma koy waxee y a beaucoup de choses qui se passent soo déggee tey jii nii wax gu bon gu ñoom ñuy wax seen kilifa diine gi duñ si wax sàcc yi tey jii nii murit yi bon mu taxa lu tax tey jii nii un si ñoom du génn du daal ne hein comme ni muy génnee di wax si gaay ki ndaw mu daal ne bépp ministre bu sàcc wala bépp président bu sàcc di woowee boppam wala di dëkkalee boppam Serigne Touba bokkul si si yoonu murit du ko wax mais mën na noo gën daan ne képp ku saaga si réseau sociaux yi wala képp ku ku laajte si yoon bi bokkul si yoonu murit boobu mën na ne garaawul ak yeneen ak yeneen mais daa di gën daan ne képp ku nu dénk alalu nguur nga sàcc ko ba pare bëgg ñëw Tuubaa naan da ngay jarul ngay ñëw képp ku nu dénk alalu nguur nga sàcc ko naan murit nga wala Baay Faal doo murit na génn def déclaration yooyu wax mu xool suba mu commencé fande parce que moom lu muy dundee alalu sàcc la nit ñi amoonu addiya yooyu noonu milliards yi nit ñi mënuñu koo takkale ba mu mat lu leer moo ta souvent gars yi ñuy tëb nii di wax ma na ne yéen da ngeen di fontu dëkk boo xam ne ni que cinq mille francs courant soo ko jëndee andil leen carte yeeg cinq mille francs courant dix mille francs courant soo ko defee sa compteur du la def une semaine yaa ngi dégg nit ñi am leen ay problème yu leen doy sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk facture ndox yi di ñëw ni surtaxé nit ñi ceeb yi cher affaire yi kii Eh, Ken Amot, nga foog ne que nit ñi luñ fi meuna a koloo bu mu mat fi ay 100 millions 200 millions c'est faux c'est les moyens pour blanchir de l'argent qui a été volé et qui dormait dans certains comptes c'est un moyen juste pour blanchir de l'argent oh créer un fonds bo xam ne dal di après jékki-jékki rek nga deug ci une seule somme de monnaie ñaar yaa ñoo ay ño ay fekk ni ñaar wala ñetti nit ño dem génnee compte xaalis bu nu sàccoon jaarale ko fa pour légui après nu joxaat len ko ci souf xaalis bi blanc xaalis bi set quoi ay blanchissement d' argent seen affaire mouridisme seen affaire yooyu yëpp blanchissement d' argent salaamaaleykum maaleykum salaam cent millions deux cent millions c' est du mensonge tey nga toog nga dégg ne waaw ministre bi may na cent millions suba suba nga dégg ak nga ne sëriñ bi mayaat na ministre bi cent millions wala ministre même somme bi mayaat na ko ñële waa kii di nangam c' est même somme qui se balade c' est comme si xaalis bi day jógee fee salte dugg fii génnaat léegi set na léegi soo demee foo jëlee xaalis sëriñ bi moo ma ko may. ah, ah muridee ma ko jox neen waxante C'est-à-dire, ils ont joué ils sont en train de jouer et ils ont joué un grand rôle dans ce bordel qui se passe en Afrique waxante dëgg gars yi lépp lu ñuy def ni si ay teg dil la teg dil du ñuy dóor blanchissement d'argent blanchissement d'argent sàcc yi ngay dégg ñuy sàcc même année su du ma ne sa même année même mois bu nuy sàcc gars yi topp leen ñuy laajte balaa mois bee jeex nga dégg leen Touba nu dem toog maye fa benn manek joxe fa benn cinquante millions wala kii gars yi encaissé ko daal di génn daal di ko ñëw ñaanal kii après coow li jeex. coow li fay ko nii dootoo dégg coow li gars yi di si wax soo jëlee di daa ne waaw murit la saadix la saadix la alalu sàcc alalu sàcc léegi kenn du ko leeral léegi lii ba kañ ba kañ ba kañ noo ngi foofu toog ndox gi ñëwul si dëkk bi courant bi matul si dëkk bi jàngale bi santé bi bul comprendre mais milliards yi comme nu ma ko waxee rek saa yoo taalee télé ngay dégg milliards milliards milliards milliards milliards yi dem nañ ba léegi ñoom danoo foo ne milliards mooy la moo tax mais xanaa ñii danoo dof wala lan on doit apprendre encore à dire sama jàngal sénégalais yi lan mooy milliards sama gaay sénégalais yi dañuy fooye milliards mel ni que milliards mburoog suukar la wala mburoog meew bàyyi ben milliard mille millions 1000 millions il faut qu'on se réveille milliards yoy y imaginez le directeur, les petits députés là tout le monde peut si nekk bëgg milliards léegi nous, nous, personnes dans le gouvernement nous n'avons d'abord plus de 50 pères postes ministériels. Gars, donc plus de 50 milliardaires. On n'a pas encore parlé des petits directeurs, les petits gars. Si ce n'est pas des milliardaires, ils seront multimillionnaires. Mais nous, si nous parlons, on est avec une histoire de 250 ou 300 personnes qui se servent de notre trésor public et qui veulent être tous des milliardaires. Donc imagine-toi ce peuple, à quelle cadence devons, devrons-nous travailler pour pouvoir maintenant gérer le train de vie de ces connards moo waral tey jii ni déggoolu moo la wax xoolal tey sénégalais lu ñuy nee naa la sénégalais lu ñuy liggéey Afrique lu ñuy liggéey tey ñun européens gars yi nekk liggéeyuñu loolu billaahi te seen dëkk yaa ngi développé Sénégal Afrique ngay gis nit ñi yeewu xëy 6 heures du matin 5 heures wàcc si ngoon wala 9 heures si guddi te bàyyi amuñu assurance maladie as amuñu xolal dara lu leen topp bàyyi loolu fii soo ko amee heure yooyu noonu ci riche bàyyi huit heures de temps ngay liggéey soo tegee leneen overtime la huit heures de temps ngay liggéey par jour soo si tegee leneen overtime la ku la bëgg liggéey loolu ëpp huit heures de temps lu la doon fay par heure double bi la lay fay léegi à partir de plus de huit heures de temps loolu la naan overtime moo tax soo liggéey ba xam te sa patron su la ne ndax da ngay toog dangay ngay commencé ree da ngay commencé ree xam ni que ah, patron nar ngaa fay de waaw waaw la doon fay 10 dollars de nga dem ba sa huit heures de temps romb ngay toog overtime ba yaa ngi doxalee 20 dollars de l'heure waaw waaw damaa waloo ñibbi maa moom sama temps free time moo ngi noonu yaa ma tey may kii coolul au double le truc du lay fay da ngay am médical de médical bi lepp lay bo lépp lay bolé bët visite générale sa yaram garab réduction cheap dans ça hay dé ga am sa mais ñun Sénégal nee naa sa du lay dag tax nga fay juuti fay pétanque fay impôt fay toutes ces choses mais on ne voit rien parce que l'outa les gens doivent travailler trois fois plus pour tenir le train de vie de ces connards ces nouveaux milliardaires, il faut tenir le train de vie. Et comment il faut le faire Il faut que les gens... Nous, nous liguez. 10 heures, là, nous c'est son bureau. Dieu nous fait 3 heures. 2 heures de temps, ils nous fait le bureau. Nous liguez. Comment l'argent doit rentrer maintenant Comment l'argent doit rentrer Il faut que ces gens de travaillent plus.

léegi nag su nekkee diine mooy pacha ñoom pour nu mën a doxal seen seen seen diine wala nekk kilifa diine foog nu nekk ay pacha donc ñun pour nu mën a am diine foog nu am jàmm tamit nu nekk ay pacha. comme léegi ñoom lu tax pour nu am diine foog ñu tegleen si yoon teg si ay circonstances yu jaar yoon mais ñun xanaa ñun bëgguñu diine ñun tamit nañ tegu si ay circonstances yu jaar yoon. nañ tegu si ay circonstances yu jaar yoon. basirba tu as raison un côté mais à côté politicien marabout pas homme d'affaires des politicien marabout ak Sénégal pas les hommes d'affaires les femmes politiciens marabouts avec les femmes hommes d'affaires yi su ak yenn nu ma koy waxee les vrais hommes d'affaires nak motax may wax ak ak immigré su su duloon ñom kandang bi am Sénégal sans détache bi ni affaire yi gën fa metti parce que amna ay hommes d'affaires yo xamné c'est des personnes publiques nga ils sont pas publics ils sont pas dans ce ñom am seen xaalisu bop am sen affaire bop créer sen compagnie et nek des facteurs d'emploi am ñu bari ñu ñuy dimbali té do leen dégg ci yenn ciow yi ñoo ngi Sénégal créer fa ay emploi di dimbali ay nit nek ci social bi def affaire wax dëgg fa yalla Eh, waa nguur gi suñ si góorgóorlu woo ñoom waaw juróomi si ñoom def ko rek Sénégal mu tane yaa ngi dégg mais Sénégal ñett yi ñoo ko yàq politiciens yi sëriñ si ak jigéen ñi jigéen ñu dof ñi toujours ñoom la ñuy jël utilisé leen ñu nekk fi di dof lu jël leen jox leen campagne footu ñu jox leen saaku xaalis gars yi yore xaalis foog ni ko mooy lool 10 millions 15 millions jigéen ñi nga seen ñuy tëb dem récupérer carte d'identité seen doom yëpp récupérer affaire yi ñu jox leen ay tissu ñu def ay cortège yéeg si kaar yi ñu ci leen ñu nekk fa dem di yuuxu maa kii saa maa saa kii naan salaam c'est su suñu demee nag ba affaire yi cóol seen doom yi ñëw amuñu liggéey amuñu problème ñoom ñu toog si kër gi lekk xaalis wu leen jox mu jeex ñu toogaat di kaas di ruube seen doom yi di ruube seen doom yi ñetti yooyu ñoo yàq dëkk bi jigéen yi di jaay avenir yu seen doom yi ngir ay sagaru 10 millions ay takkaay ak jël seen carte joxe leen kilifa dîner yi waroon wax dëgg lu ñu wax dëgg nekk fi di par parloo avec ces politiciens corrompus Net yooyu ñoo yàq dëkk bi waaw Net yooyu ñoo yàq dëkk bi jigéen su baaxee baax na jigen su bonee rek benen affaire la waaw jigéen su baaxee baax na waaye su bonee rek bu xaw ba sëgg rek mooy loolu su xasee parce que les hommes d'affaires hommes d'affaires yi sont waxee homme d'affaires rek day xaw bizarre parce que homme d'affaires c'est biir amna ay homme d'affaires yu bokk ak nguur gi ñooñu c'est pas des hommes d'affaires ñooñu so leen bëggee bolé hommes d'affaires da ngay nax sa bop sont pas des hommes d'affaires c'est des prête tous ces hommes d'affaires yu ñuy woote di nek ak nguur gi c'est des prête-noms c'est des doomu xaraam yu am ay xarit yu nek ci nguur gi nu sàcc xaalis use leen ubbi compagnie def ko sen tour jiital leen si yaay ngi comprendre léegi il se partage les royalties donc c'est des prête et c'est une association de malfrats foofu non, c'est des blanchisseurs c'est une affaire de de corruption donc là-bas c'est un truc mais des hommes d'affaires comme nous, ils sont venus depuis ils ont commencé depuis le bas ils se sont battus wala ñoo investi. ne danoo amoon seen xaalis andi investir la plupart du temps ils ne ils sont pas poli doo sa dég. ils sont commencé leen commencé Ils ont commencé na leen sonal bëgg leen yàqal seen compagnie ba nga xam que la seule solution bu ñu pour sauver leur compagnie dem tout tuuti cogg dem defi di le choc pour encore toujours ils vont aller à la fin ils vont finir par être des prénoms des prêtres, parce qu'au départ ils rentrent comme des propriétaires comme des patrons de compagnie comme des patrons d'un groupe mais à la fin leur leur propre nu pourcentage actions vont se retrouver sous les mains d'un hall de peur quoi d'un gangster virtuel qui va venir xam nga affaires affaire bi Teklen, len et va devenir actionnaire majoritaire si un propre business tu elle est tenue comme des putes de service Nous ngi nous ñu nekk nag tourner de faire le sale boulot parce que soit ils ont fauté pendant deux ans sans payer des impôts on les a attrapés sur certaines choses yo xamna ni sur ça qu'on les fait chanter Y'a rien comprendre ce soit des malversations, ou alors ay malversation wala des impôts wala nekkoon fa di konkon wala am fa ben vidéo bo xamné ne wala am fa ben affaire bo xamné ni que daal moy lol nguur gi ko rek ñu teg si dossier ci conc bi tag teg et après maintenant tu es le pute de service à quel point soko ko on va te vendre on va te vulgariser donc Sénégal c'est juste une politique bu fa am politique africaine bobu non c'est une politique du plus surnois du plus surnois au plus xam nga rek moi alors, quand tu es vulnérable quand tu as laissé des séquelles tu as laissé des traces ben ni am su ci siy rek tu vas devenir le pute de service tu vas devenir le pute de service lenn nak mo la siy guenné moy que tu sois un con politique bob non rek la siy guenné genre aussi sa looy con wal mel ki dofal lolou ñoo ñu ñuy quand tu es un con ça seen ndey dof rajaxe ki nangam tu vas vivre ta politique bien sorti parce que majoritairement ñu si ay tapet lenn ñu nga gis yëpp ministre yeeg yëpp ay tàppet la ñemew nu yet ñemew nu kii xam xamuñu xeex ay affaire kii moo tax suñu demee du ñuy làqatu si ginnaaw constitution bi làqatu si ginnaaw armée bi sàcc boo gis bu la dàq sàcc kii nangam kii waxi kii na moo la gën a tàppet voilà bandi yu ñeme yi nag ñoom ñoo ngi si terrain bi ñoom ngay dégg toujours ñuy mbëkkante parce que ñoom loolu lañ tàmbal adrénaline ils aiment cette adrénaline di sentir seen xol bi di palpiter pëpp pëpp loolu leen di dundal

loolu moom moo loolu moom moo nekk seen kii quoi Sénégal moom lenn moo foo yàqu mooy ces trois yu ma leen cité jigéen politique kilifa diine yi parce que ñooñu ñoo yàq te soo leen xoolee ñetti base yooyu noonu moom mooy base bu futur moom mooy base bu waloon tàggat tey ndaw ñi mooy base boo xam ne ni que tey ñoom ñoo waloon la préparer le futur pour les autres ñoom ñoo yàqu moo tax tey ndaw ñi suñu génnee suñu ñëwee ils perdent des repères du ñu am repère du ñuy ñëw du ñuy affolé du ñuy ñëw di gën di saaga di gën di yuuxu di dem parce que pourquoi ils sont affolés xamuñu ñu leen waroon xamal xamaluñu lu leen di dugal seen bopp yi mooy buur baa ngi ne soo jaamu di def ni tànk yaa koy jaamu di top, si ay waam di def ni c'est bon mooy sëñ baa ngi ne nguuru la nguuru nguuru sëriñ si lu muy def nii jamono jii nguuru la du daram diine lii amul lenn du mu wuuteeg jamono bu buur di ñëw bëgg yenn surgu yi taxaw nit ñi toog si suuf muy wax di kii di ko yëkkati di ko toppatoo di ko koloko nguuru la rek nguuru nag ak diine amul dara Bachir Ba Thia effectivement raison waxuma la presse miskinde loolu xam nga yàgg naa ko fee coow di ko kaas naa leen presse corrompu presse bi presse bi presse bi presse bi presse bi gars yi naan ma non nervi yi tamit commencé na noo ñëw nervi yi am na nervi yi tamit waxoon naa leen fi solution bi waa non kii waaw suñu policier yi balaa amee jug waaw jaajëf suñu mën na leen ee eh, policier yee njëkk ñàkk fayda fii laa ko waxee gars yi wax kii ma may mën na leen non bul wax loo kii naan ma na leen dëgg su jotee dañ koy wax ka nanu mere police njëkk ñàkk fayda policiers yi suñu ñàkkee fayda ba ñu dem jël ay nervi di ko teg ñuy ànd ak ñoom di def seen i liggéey wala ki ñoom lu nangu ko ñoo ñàkk fayda policiers yi ñoo waloon xeex lii ñoom d'abord balaa sa nguur gi wala population bi di wax parce que policiers yi ils sont bêtes def nañ ko fi ak ASP yi fii leen toog ñu dem recruter ay ASP xamu na na leen demee boole leen ñoom lu nekk si tali bi di def ay bêtises lu nekk nu dugg si mais ñan leen koy jiñ du commissaire ak police ak seen coow li andi fi kii coow tey deuxième fois nervi fi ñoom ñoo ngi toog ñoom ñoo defi ji woon formation ñoo soodo ñoom ñoo tarbiw am seen tenu génn tey nu ñoo boole leen ay mbaam yoo xam ne kenn xamul fan lañ jóge xëy rek ñoo teg leen kii nu nekk fi di dof-dof te infraction bu ñu def problème bu ñu def ça va retomber sur leur tête ñoom policiers yi ñoom ñu toog noppi di ko seetaan ànd ak affaire bi di dox ba léegi c'est leur problème ça montre toujours que la police c'est le directeur de la police ak ñëpp ñu topp ils connaissent rien Ils mbaam leen ay pion leen du leen téye rek di leen manipuler que Macky Sall moo manipuler mais nous, xooluñu si sax éthique éthique u policiers yi xooluñu si sax ñoom seen gëdd ak respect alors que les hommes de loi les hommes de tenue ils doivent avoir un respect éthique mais tey jii ni policiers suñu demee ba leen di ñàkkal fay de ki c'est à cause de tout cela cause on, les a prouvés à n'importe, à tous les moyens qu'ils sont incompétents de ce qu'ils ont besoin maintenant des renforts. Il faut aller prendre des personnes sur la société. Nous renforcer parce que les policiers sont maintenant incompétents au nom de C'est Donc, quand nous des personnes, gâché au Sénégal, gâché au nos constitution, et nous, ils sont en train de, de, de donner C'est vilain pour l'image du Sénégal. Très vilain. Très vilain. la donc mbër donc daa donc donc police Sénégal dañoo xiiboon ba nu dem jëli ay civil mbër làq leen si biir pour ñuy def ay affaire ñëpp après quand ça pète crime yu ñu reyoon noonu bu nu demee keroog gars rey am na si ñoo xam ne leer na ma ne ay nervi ñoo rey si booy mais ba clatement bi jugee ba coow li jugee on a dit la police point barre l' sa ça la ay eh, puis point ñoom nag ñoo war a yeewu seen bii presse bi nag. presse bi nee naa leen presse bi loolu beneen affaire la presse bi boobu kaas naa ko fi kaasaat waxati la fi ngeen tokkee ngi seetaan nee naa leen presse boobu tant que boycotté wu ñu leen. nu aju presse yëpp bàyyi leen dem wàcc seen place yi toj ko seen presse yëpp leen wala toj toj ko rajaxe ko tasar amul nu njëriñ c'est des corrompus patron de presse yëpp leen corrompu. ñëpp nee naa fu ñu waroon njëkk commencé dajale presse yëpp képp koo si xam ne que sa nga am patron de presse politicien wala mu laq si mu laal politique ñu éradiquer presse warul laal si politique presse dafa wala neutre dafa wala neutre toutes ces presse yoo xam ne que dañoo ay directeurs yu politique am ay patron yoo xam ne dañoo bokk ay parti am ay affaire ki ñu kat seen lu bon tasaare ko teg ko nële mais ah, quand je le dis souvent kii nangam am na temps gars yi ana waa may mën a nduur may mën a nduur sax fii la fi génnoon kii di expliqué am nay temps ma xool ne ko yaay booy bii nii kanamam bu sew bee kii ni muy waxee kii di toog kii ku wow bët la ku wow bopp la ah, ah, ah non yow moom yow moom da ngay génn rek attaqué yow moom ay kii nangam kii ma ne leen ba nit da nga koy jàng. Il faut apprendre les regards, les positions et les affaires de qui. Il faut regarder bien les personnes. Django, moi je ne me laisse pas bluffer parce que tu, tu, tu gorges ou tu roules des airs ou tu me fais la belle. Faut les sur Parce qu'il y a du venin dans ce qui est beau ou ce qui est qui. Il y a des femmes vipères, il y a des choses qui... Quand c'est trop bon, c'est trop beau ou c'est trop trop qui. Parfait. Moi je pose maintenant des questions. Parce que je sais que la perfection n'existe pas. Il y a la règle en perfection. Man, quand tu viens, tu me pousses que c'est trop bon, c'est trop qui. Ah, je te laisse jouer ton jeu. Et là, j'ouvre ma tête maintenant. Comment à me dire, non, non, non, non, non. Parce que l'effort que tu te donnes pour essayer de sembler parfait et de montrer que tout est parfait, c'est parce que tu veux cacher quelque chose. Tu te donnes l'effort de cacher quelque chose pour être à la perfection. Maintenant, man, caché, l'on l'a Ça sort. Ça sort.

nañ ko teg si yoon rek ngeen gis léegi dëkk bi changé nee naa la Sénégal suñu bàyyee fen ñu commencé koo teg si yoon dix ans bëri na ñaari mandat mën na noo changé Sénégal su fen jógee Sénégal par parloo jugee Sénégal ñaari mandat mën na noo defal Sénégal balaa troisième mandat xolal ñoo ngi tegu si raay bi di doxal nous sommes si xolal ñoo ngi si raay bi di demal parce que nee naa la Sénégal réewul réew yooyu noonu te bëriwul ku nek su concentré ci dara ñu ñew tok ñu and ci fulla ak fayda amul tapalé mën né no ag fu sori mën né no ag fu sori mais tant que tapalé bi am ah non sama sama sëriñ mo gën sa sëriñ sama yoon mo sama mam. mo gën sa yo yow yow yow ndreng yow jugal fele yow ké ah wa ki ki wax yu sew sewaan yoy non lu mo la wax de sunu buntu kër yi du set ba suñu xol yi di set dara du bax on a tous les mêmes problèmes Nous Nous ñun nit ku problèmes. sénégalais wala ay affaire mais c'est que en fait nous nous le noir Nous, on a tous le même problème Nous, nous Nous tous nous les noirs on a tous le même problème

su loolu doxul nga naan doo naan ba mandi donc mooy loolu da ngay dépendant da ngay dépendant ñun nag France nu moo moo tax tey xoolal lu ñuy lekk lu ñuy naan suñu lépp France lay jóge wala seeneen dëkk ñoom suñu xaalis sax bu ñuy dépensé France lay jóge donc ñoom ñooy xool ñaata pour cent ñaata la ñuy dugal ñaata la ñuy génne ñu koy defee suñu bourse ñoo ñu tànnal lépp ñoo ñu waxal lépp donc ñoom mooy loolu. donc suñu nee suba suba suba ñun dañoo way xiif ñu aj prix ak lépp jox ñu tuuti xaalis famine commencé na Sénégal on a parce que lu tax France wa yokkee royaltisme prix wàññi kii mooy xoolal na Sénégal marlo Sénégal parce que nous sommes Le ndox bi courant bi électricité ñu tout lepp luy dugg ba nous ba lu sax France. donc tant que nous dañu fi. on aura toujours des problèmes on aura toujours des problèmes parce que lii pour nous faire ko du division mooy tax nu xeex ko booloo mooy tax nu mën koo nu mën koo nu mën a àgg fenn bolo, moom booloo booloo te secte yii a ma leen di wax gars faire affaire nyou nous ñëw pour féewalenu nous, pour nous ñëwunu pour boolenu te tant que ñun commencé wu noo bolo rek nangulante nangu problème mu ñeneen ñi képp xam ni ko tous les mêmes problèmes nu bolo nyou toog gëm suñuy kii xam ne que bàyyi ñoo far dañuy mayante jabar wax gee ngi fii ay gaay be do no ko suñu toogee saagante ethnie ba par tay da ngay tok sereer bi jabaru tu jabaru tu couleur bi amna jabaru sereer susu bi amna jabaru njaayaan kii ñooy mayante jabar suñu doom a ngi jamono ji neena la kuy tok sa ba di xass nit wala ay affaire de ki sa gatché mo la nar fekk sa kanam sa gàcce moo la nar parce que léegi affaire yi jaxasoo neen nit ñee ngi mayante jabar affaire bu njëkk ba séeréer wala buur du sëy jaam jaam du sëy loolu jeex na nit ñee ngi sëy ba mu neex nit ñee ngi sëy ba mu neex donc nag unicité boobu noonu lan wala continuer jël yenn conneries yi dindi ko suñu bopp su nu demee nu andi nu ay ñetti korité ñetti tabaski andi ay affaire kee créé bâcham teg fële kee créé ay affaire mën na leen léegi ñoom ñoom ñëpp ne ne islaam la nuy wax pourquoi kilifa diine yi noonu ñoom mënunoo créé tamit ay journée spéciale xam ñoom ñëppay dajoo wax fa yàlla lu tax mënuñu ko manqué wul place ñu def journée boo xam ne tiijaan yi ñaseen yi laayeen yi ñoom ñëppay toog ñu ñuy def noonu di boole di dem di jooy di dajale def seen réunion secte pour créer nu ñuy defee nu booloo ñëw wax fa yàlla

wax fa wala julli ba pare wa ki bala no tago ñuy saafante sante nuyonté lambaté biir xam la paix maintenant parce que ñoo ngi commencé ñom seen biir bolé pourquoi duñ ko def parce que suñ ko du arrangement haris les ñuy plus ñuy wala nit ñi di tas ñuy gëna mëna budget c'est vrai chéri ma journée d'Allah nu xam mën na wal na xew journée boo xam ne férié lay doon Sénégal vingt quatre heures kenn du liggéey chacun vêtu de son plus boo boubou xëy neex ku nekk loo am lu tuuti nu dem nu jël bayaal bu mag sooy ñëw nga andi ndogu yàpp kilo ceeb wala nangam togg bi jaru sax addiya xaalis ak non togg yi gars yi ñooy andi ku nekk a asuuti nu boole lépp def nga di feste teg toog waxtaan cheikh yu mag yooyu noonu di wax xam nañ yàlla kii tarixa yëpp toog nële tamit ñu toog jaakaarloo ñu wax nu fa yàlla kii su waxee temps d'antenne wàcc kay wax kay wax kay wax nu saafu boole famille bi parce que fa yàlla la jëm suñu paree ñuy ànd ak ñi bokk yoon bokk yoon ànd ñibbi nu waxtaanee fa yàlla ànd ñibbi ñu mën a déposé ñii ànd ñii déposé nu ànd dem fa yàlla suba nu toog nu waxtaanee ko mu nekk image ay jullit yu bokk ñëw dajaloo fa yàlla mu neex Nous Sénégal c'est pas sorcier c'est pas qui. c'est easy Ce qui nous ko décider correct, jour comme nous le 23 il marche c'est facile communiquer et le 24 grand journée d'Allah. on le déclare grand journée d'Allah. qui d'ailleurs ne est ñëw journée wàccee kaamin de waxtaan fa yàlla xam nga ñu ko ci de nous maye ay si ak ay nit ñi ñu une journée de foi Nous fa nous ñu Nous ñu amone problème nous ki yeb ñu jubóole nous xam nga nous nit ñi nit ñi mu neex nous dem tum def non voilà nous déggoo nous nous manko nous loolu pourquoi loolu mënuñu ko def ko def c'est dommage quoi moo tax comme nu may wax rek nee naa leen xam nga fii nii ku nu woon golo nga tuddee ko lapin sa xel a neexul rek wala walla nu ma koy waxee da ngay màndi màndilu voilà ku nu woon golo nga tuddee ko lapin sa xel a neexul wala da ngay màndi màndilu mais ñun comme nu nga waxee suñu problème ñun xam nañ ko suñu problème a ngi nii zéro suñ ko bëggee faj mën nañ koo faj suñu bëggee mu changer mën naa changer si lu gaaw si ginnaaw ñun nu am pas-pas bi nu am yéene bi nu paree ñëw changer ko parce que comme nu nga ko waxee dëgg du romb nopp te dëgg du lu nuy calculer ki lu nuy tour nekk di ko manipuler soo rombee ba nga gis dëgg di nga xam ne que dëgg ngi. soo ñëwee ba nga fekk dëgg di nga xam ne que dëgg ngi yaa ngi comprendre léegi nag wax ki ñun foofu leen si tool fu si toll mooy ñu foog na ni que àdduna gi wala fa yàlla wala àjjana gi si ginnaaw dem toog bañ góor góoru bañ liggéey bañ jaamu yàlla si noonu lañ koy amee jarul sax ngeen di saaga wala ngeen di wax ki nangam comme moo ko waxee rek dem leen ngeen toog ngeen xaar. parce que looy xaar du yàgg mu fekk la fi looy xaar du yàgg mu fekk la fa àdduna gi tànk yaa ngi dund wala dara dalu la dangay foog ni ko du mus a jeex dangay foog ni ko àdduna bi su wàccee danga koy tëye parce que yaa ngi yeewu yaa ngi si jàmm mais bis boo commencé tawat yàlla commencé laa natt sa kàmb gi di la jege si su boobaa di nga soxla yàlla boobaa di nga xam ni ko fee nga jëm kenn du la fa fekk si yaay demal sa bopp de yaay demal sa bopp su boobaa nag ngay commencé nag tatone bii ngay def nii wala tournée bii nii ngay def nii nag nga commencé koo tourne nag bu baax nag di xool di naan ah kay nan laa na defee mais sa kàttan jeex na nee naa la loo jaamuwul tey teel koo gaawantu lijjanti ko doo ko fekk si pax bi de voilà léegi nag képp koo xam ne ne ko wóolu na sëriñam mu wóolu ni ko sëriñ bi moo koy yóbbu wala fan nee naa la wóoru sax ngay deewee àll. parce que soo deewee àll wala si immigration wala wala dëkk bi sëñ bi suñ ko woowul téléphone daa di ko ne diw gaañu la du ko mus a xam déggoo lu ma wax de sëriñ bi suñ ko newlee diw gaañu la du ko mus a xam yëgul ni que sax yow gaañu nga wala kii xam nga comme boog nar ngaa doy waare nu nga nar àggee àggee na wala nu nga naree dem fa yàlla doy na waar donc lu gën a wóor mooy soo gëmee ni que sëñ bi moo la yóbbu da ngay jël say bagage jël sa lépp dem xolal dëkk si wetu sëñ bi nga koy xool mu lay xool pour soo deewee mu yëg la voilà mu yëg la nga mën ko parce que yow mii sa sëñ bi su deewee doo ko yëg voilà mu yow tamit soo deewee sëñ du ko yëg voilà léegi nag man nu muy def nag ba wala mën a jël si la yóbbu la àjjana ma looloo may jaaxal voilà te sëñ bi su deewee moom su la jiitoo yow nga transhumé dem si doomam je ne comprends pas voilà mais daal lu wóor ba wóor mooy nga dem toog si buntu këram mu xam la mu xam ku mu wala yóbbu wala sooy joxe addiya nga joxe sa photo wala nga kii moo gën a wóor moo gën a wóor mhm. parce que gis nañ fi ay sëriñ yoo xam ne xëy nañ fi génn ànd ak njaboot voilà ñoom ñëpp nu faatoondoo si yoon bi kenn moo ngi noonu kenn mënu si dara nee gis nañ fi ay sëriñ yoo xam ne xeex jot na nu jël seeni doom yóbbu leen sa xeex ba boole leen sa gaay nu dem xeexi nu dem sa xeex ba nu faat leen te ay ah te nee doomu sëriñ sëriñ la donc faat nañ ay sëriñ si teew kiiwu xeex ba bal bu la muy faat sëriñ si dégg ko woon gisu ko te mënu ko woon dévier mënu si woon dara voilà propre doomam taxaw nii nu fëgg ko bal mu wàcc comme mbokk nag loolu day doy waar quoi toujours rek comme nu may waxee moo tax ma naa leen képp ku si gëm nekk rek sëñ bi moom moo lay yóbbu wala sëñ bi dina am fu mu lay dugal wala sëñ bi ay affaire yi wala wala ngaa fexe ba góor góorlu rek deewee fu mu lay yëgee wala deewee fu ñu koy fekkee ngir au oh, moins mu la ñaan mu tané quoi e nga baña perte pile perte less voilà comme bok moy e loolu nonu quoi ma ñew yemalé waxtaan bi fi nu daf ko nonu ba ci benen waxtaan len eh, sama gaay Sénégal sunu Sénégal su baxé ñun la baxal su ñun la neexal su yaqko tamit ñun la yaqul te nag comme nu ma koy waxee chaque jour dinañ rendre compte à nos enfants suñu doom yi moom si yóbboo na ku nekk waajal boppam su ngeen foogee ni que doom di nga leen jur ñëw teg leen di len wax waxu sëriñ yaa ngi nax sen bop parce que ñun suñu génération bu juddu génération ni ak li ko si ñëw di waxu sëriñ yow sa yow baay bi si bopom nan nga am problème ñun nak lu tax nu am problème comme nu ma koy toujours ñun technologie def nu fay fekk nous fait que nous fait technologie nous sommes temps on avait eu du temps libre bon nous dougal si côté yo dof yo non téléphone internet affaire qui yop technologie bi technologie bi 2001 2002 bi le commencé dougu afrique 2001 2002 le commencé dougu afrique 2005 2006 le commencé am ben doole bi gars di ci di commencé wa donc technologie bi du lu yàgg si ñun ñun ba ñuy nekk fii benn télé la woon benn rajo RTS midi lay ubbi minuit lay tëj ñoom ñooy choisir lu ñuy seetaan tegal nu ko on avait trop de temps moo taxit mooy lool mais ñun suñuy doom ñoom du ñuy judd ak lu ma koy waxee avec tous les instruments du ñuy judd avec tous les choses yoo xam ne du leen di teg si ay yoon ñun tey di nii duñ doon yeewu suñu baay naan ba may jàngi. Oui, à l'époque, bu may nekk boy je marchais 3 kilomètres 500 allez, 3 kilomètres 500 retour fila de doon Nous sommes dans da nga du toog di xool paa bi le ko père lii lépp pour ma jàng ñun tamit si temps t'amis, on marchait longtemps on se réveillait tôt L'autre, on a aussi de quoi raconter à nos enfants hein. on se réveillait tôt sangu y a pas de chauffage da ngay yeewu na di bon, saxaar bi bokk nga wala sangu si ndox bu sedd bi. Yeah, on crée les choses. Ragoubi, le ragas jusque-là. Nebatu nyou sale ni ça, Ya Gaïna nangam, le Et pour aller à l'école, tu vas aller prendre Abdou. Abdou, on prend Binta. Binta, on prend Aïcha, Pate, qui on prend tous dans la même route. Et on fait le cortège, on part ensemble. Sunu nous wole on doit attendre ah, ah, ah, Abdou on doit attendre Binta en sous tout le monde et on prend encore la même route. Voilà, nous On a reçu notre notre truc. mais tey jii nii suñuy doom nu mu demee su ah, suñuy doom da ngay yeewu yóbbu leen déposé ñëw ñoom ils ont la chance xam nga ñun suñu gaale benn paa bi rek moo doon am oto maam bi benn R4 wala R5 moo ko doon ne su doon jug duñ koy gàttandu ji fële si kaw suñu xamee ni que paa bi taal na oto bi tey dem na ñëpp a bëgg si si heure ñëw leen fële lañ koy xaar si bopp koñ bi. ñëw leen ne eh, maam maam maam ñëpp daw ku nekk foo mën a dugg fu nu mën a daw mu dawal au moins un ah, oto mais léegi les voitures sont partout. suñuy doom dinañ dugg nu teg leen si oto yóbbu leen wàccee dugg solo leen blouse nu rafet jox leen goûter jox nu am inter am ay tablette am ay kii internet ak kii nee naa la. génération bi di ñëw su nekkee ni que si ay affaire de kilifa diine ay sëriñ bee kii nanga foofu nga ko bëgg jàppee di nga nekk papa bu nar a sonn ak sa doom. billaahi parce que les enfants hey papa lii nag papa pourquoi lu waral lii ki préparez les réponses nee naa leen Moussa bii ngeen bañ a tontu Moussa bii ngeen bañ a répondre.

doo laal jën xale du lekk bopp yooyu day keeki nangam téyel bool bi jàppal kii tournel ni ñoom nag gis nga seen général amul yooyu amul yooyu donc c'est le temps il faut vous préparer te xam ne ni que lii ngeen di bañ ñii di yuuxu di wax ni seen bii kër yi lay génn see léegi c'est pas seen doom yi seen mën niw yi ngeen génne jur ko teg ko teg ñooy ñëw laajte wax gi parce que nous le le dom doo sous sans film Spider-Man nu def ba sànni xolal toile araignée bi su mu a nan la Spider-Man def ba toile comment c'est possible waxatuma lak yow bayam nga tok ne nit na wala ne tu vas lui expliquer ça il va aller à l'école il va venir te montrer un truc ah si yow nak na ngeen waajal lu lèr la len di tu ah un yew nan yew bo xam ni ni tabarakallah ma sha allah wala xale yi quatre ans cinq ans nee la jël téléphone nga jox len ko nga dem tok nële nga sétane so bëggee xam ndax tal xale yew nan wala yeewunu wala jël tablette wala ordinateur jël boy waxuma la 10 ans ki dafa sori quatre ans cinq ans laa la wax jox len tablette jox len ordinateur wala nga xalat yow so bop ya à 4 ans à 5 ans nu mu demee c'est là où tu vas comprendre

yaram yàpp la ku nu dóor ko dóor ko mu yëg ko comme bokk nag affaire bi dem na donc le nouveau slogan dóor fay du nu tooñ saaga ki ba ah dóor fay voilà dóor fay donc nag nu def noonu ba si beneen waxtaan beneen live beneen affaire ki nangam voilà man kontaan naa leer naa leer na ma ni que léegi waa Pastef génn laay laay laay Ousmane Sonko nee na dóor fay ah dóor fay de waaw léegi waa Pastef génn dóoraatekat yi kay moom xam naa ni que léegi ngeen bàyyi dóor xam naa ngeen bàyyi do réseaux sociaux yi mom non léegi dootul nek réseaux sociaux day nek réseau social réseau social parce que dina fi am ay nit ñoo xamne dina leen dóor a dóor a dóor ba tegal leen social waaw waaw da tegal leen social moo bobu rek nak la bëgg bàyyi mun wax social le seul mot que bëgg bàyyi c'est parler en français social bëgg bàyyi su waxe mooy prononcé bu rek nga daan mais bëgg bàyyi su waxe ba ne social waaw kii jàll social mu ne ko yow moom sa français beeg sa kii social rek nga jàng moom moom social bi lay dox de waaw social rek waaw ay di mboq weeg kii naa fii di sànni xeer bëgg bàyyi daay daa rakkaaju dañ koy laal rek mu génn waaw yi yi yi yi yi yi eh xaaral ma nuyu sama sama petit fou la eh petit Aliou petit Aliou Aliou Ndiaye day ko di Christophe Christophe Colomb Christophe Colomb laa lay tuddee du ma la sa woowee Aliou Ndiaye laa lay tuddee le colonisateur perdu Christophe comme yow yaa ngi si affaire yi ba léegi nee naa leen premier taalibe moo ngi loolu Chris Chrisio Christophe billahi wa dama am problème quoi ñuuxiti ñuuxiti samay fan sa leen nag de day ko ñuy wax ni soo waxee nu na la boy ñooy waxi kii daal mais nee naa la cent ans quatre du mois ils parmi les fans les fans numéro 1 non su amone sa 3 personnes leer mané ma ni que troisième bi moy nek mom waaw su yagge di nga nek nit yow doxalal rek du ne nga ni ko man nga ñew pour euh man nga ñew pour yey sama nopi wala man nga ñew pour njabluma yow kay togal rek su yagge di ne xam kuy njablu yow kay nee den tok rek di nga comprendre kuy njablo ku dul njabloo kuy ñew yeah yeah yeah nee a part saga gis nga Christophe a part saga Eh, toog tuumaal mënoo leen tek dar te man ko mo len ko waxe rek neena le man man te yep la len ko meuna rek man damay saga hein len rek la do def sama aduna len rek la musu te di ñaan yalla yalla di ko di ma si féewale saa su nekk mooy tuumaal doomu jambur waaw lol mom dama koy musu waaw parce que tuumaal nit da melni ni ngay dag ci deram di ko lekk nit da melni ngay nan ci deretam man mom dina wax lu nek sauf tuumaal nit na ma si yalla musul motax it comme pour may tok pour di wax ci seni affaire di wax ci seni nday di tok di saga seni nday sax souvent hein Aliou Ndiaye billahi damay togn rek waaw parce que kon ma he man ba maa mënumaa bëgg sama nday beug nday ba pare bagn sa nday bagn ndeyu jam non damay wax rek waaw xamaluma sa nday dara waaw te lerr na ma ni ko sa nday munul munula eum ñenti ba pare daa di la bañ quoi wala pare bàyyi la donc moy lool légui moo tax toujours sumay wax man damay waxé nak si ñu nga xamné ni ka tay ño tax yow nga rir moy ñan moy sa kilifa diiné yi ñoo nga dem ko tok ba nga faté yow tay ji ni sa nday gi parce que tay so duggé ba ngay saaga nday jambul c'est parce que tu es prêt pour nu saaga sa nday légui yow ñoo ñooñu tax tay ji ni yow nu jaral la ba nga jël sa nday asaaloo di génn ku nekk di saaga sa nday parce que yow japp nga ni que yow ñoo ñoo gën sa man ñooñu ñoy son problème toujours man nee sofi la sofi yage, fi alu soo fi yage boy alu billahi di nga bëgg sa yaay te bis bo bëggee sa yaay di nga si ñuuxin amul talibé buy bëgg yaayam ba paré nek ci talibé amul waaw mënul ne c'est impossible parce que do génn ñëw di défendre lo xamné tay pour nous saaga si sanday ci kula ku la ëmb juróom-ñeenti weer la jox la ween nee la jël loxom bi di duggal say poup di la di man fi fi soit yow toogee cinq minutes wala dix minutes su nekkee sa yaay ngi dund di nga jël sa téléphone woo ko nekk ko sa maman bisu raccroché fii soo fi yàggee di nga bëgg sa yaay waaw ah, incha allahu rabbi waaw ah, di nga saaga ba doyal di nga wax ba kii mais fin bi balaa ngaa génn di nga bëgg sa yaay incha allahu rabbi waaw ah, te dinaa si dox lu baax nag léegi nag la reste nag moom loolu yow la concerné. gëm nga ni que nit dina la yóbbu àjjana ya nit kooku noonu so bis boba vous allez vous gérer yaa ngi comprendre c'est votre problème ya bis bu àjjana man talna naa leneen lu dul naan ma ngi wër Aliou ndjay nank ko ndax yegg si wala lekk wala ki nangam yow ak nit koku wala fa faa vous allez vous gérer yaa ngi voilà comme wax gi non la démé saga du xam-xam waaw da ngay dul waaw sa ki loolu noonu ça prouve seulement encore sa ñàkk xam ak sa kii comme ni ma la ko waxee loolu du xam-xam man dama koy def du xam-xam dama koy def su ma pété les plombs je pète les plombs damay wane sama jikkow nit du xam-xam mais soo bëggee xam-xam da ngay wàcc da ñëw nga teg nga tegu nga débaar nga wax nga génnee xam-xam nit ñi déglu la nit ñi mën a comprendre la ngay wax lan la nee naa la dangaa tuuti xam nga lu tax nga tuuti yow balaa ngaa yegg si dangaa tey ñoo ngi si un mois sept mois. un an sept mois laa lay tegal nii de ñoo ngi dem si deuxième année ñu la gënoon metti yi yoo fi jiitu laa la wax nee naa la kenn mënu koo lay déggoo ma na la seen mbaamor pambay si laa boobu sax génn naa jéem a lay mënul lay déggool ma ñu ko jéem a lay doon koo wóor ba sonn lay bàyyi fële leen toog duma seet da tuuti moo tax ma ne la soo génnee nag nga ñëw nga foog ne ni xëbër xëbër xëbër xëbër bi moom mooy tax dara changé wala wax ak kii nangam kii na da ngay sonal sa bopp rek dangay ngay sonal sa bopp ëppee xam-xam soo ëppee xam-xam da ngay ñëw nga wane ko si démonté du saaga xam-xam bi du saaga mënoo sa tontu 33 femmes ñett yu bokk ndey ak baay ak benn demi-sœur lu si islam wax loolu rek dafa la jaaxal looloo tax ngay saaga tey yow loolu moo xolol moo tas seen kër. tas seen yoon bi andi coow li si biir dëkk bi une seule petite question soreegunu pareegunu àggagunu woon si jàq jeeg jumaa gi jullim géej bi pareegunu si tëjoog gaynde bi pareegunu si tere tere julli sëriñ Tuubaa beeg wóor beeg nangam àggagunu si y a trop de points yoo xam ne suñ si àggee di si wax bàyyi saa waay doo pare wax gi de parce que xam-xam bu ngay wax nee naa la mënoo tontu le premier qui est depuis un an et demi ay saaga nga foog nañ nga koy arrangé da ngay sonal sa bopp de da ngay sonal wala ñu neen saagante tey suba moom Moussa dafa bëri jàpp nee naa la Moussa say baay yàgg nañ fi kenn mënu koo ne man doo ma cerner doo ma cerner voilà ah non waa jàpp ne moom non nu may saaganteeg yéen tey jii nii noonu laa mën a génneeg yow suba xolal mel ni du man maa doon saaganteeg yow démb. ma génn ak yow ginnaaw suba ñëw andil la si beneen thème boo xam ne ni que mel ni que du man sax maa doon wax thème bii nii tey wey parce que lu tax ku ñëpp xam foo jëm doo àgg de te man pour ngeen xam fu ma jëm di ngeen sonn de toppal sama gannaaw rek nu doon eh, toppal rek nu dem yaa ngi dégg Aliou donc je te donne que nag comme je te le soo ma xamee ne non yow xamoo ma voilà mais nous, xam-xam ne lii su ma ko commencé di def lan mo siy top ak lan moy nek ak lan moy nek wax gi quand je commence à te donner des temps d'antenne comme ça là tok ni di wax ak yow ni nangam je te donne encore un topo parce que man nee naa la ragaluma loo te làqatuunu loo te kii commence déjà à créer un faux profil yaa ngi un autre faux profil parce que bi déjà faux profil mais crée un autre faux profil parce que je vais te bloquer

Et là, on va continuer. Et là, quand, quand tu viens, on rentre maintenant si Gambou. Qu'est-ce que nous, nous, nous, toujours du word, du dagal sandai, du dougou si Gambo. Comme que Bob Mola Sinir. Boba, nous, nous, nous, d'affaire si Gambo. Mon moi, wa Gambo, deuxième live. Life, bo, xamé sous dougou, xam xam amou, affaire qui. Boba, mon def yoy non, non, non, ah, quatre sandai, qui ni n'angal sandai, nous dougou si Gambo, non. Du nous, j'ai affaire. On va pas les mélanger. Là, comprendre. Donc, encore, dans don récapituler, rek. dila tégat encore si, si si code di la xamal ni que ñun ba ñuy jug jugagoo leen boobu yéen a ngi di tourner di xawma lan la ngay lijjanti ne akay ah, di nangam di tourner di jaay ay affaire ñun toll nu si côté googu noonu ñun instant gi nii lan moo nu jaaxal mooy comme nu wax benn question bu fi taxaw boobu ba léegi ku koy tontu mu daal di mën a continuer si question yi si topp loolu moom mooy wax gi voilà léegi nag le reste laa nag moom maa la ëpp xam-xam. Malaki, la kii maa la yi du ci wax lolu du ci wax lolu c'est sur le terrain c'est sur les questions réponses voilà am nga xam-xam ya ëpp nit ki xam-xam paré nga ki nangam tontu et on avance voilà du saga, xam-xam bi mom du saga. Ah, saga bi mom reewante la rek voilà reewante bu ñu ñëpp nu am as tuuti suñu bir waaye bi moom du xam-xam saga jarul xam-xam waaw saga jarul xam-xam ça ku la gën a illettré ku la gën a con koo ku la ku koo xam ne que bu na naa ko jàngil jàngul moo la dàq saaga parce que day dese ay giga si mémoire am pour créer ay saaga day dese espoir vide esprit vide kay esprit bu vague yooyu noonu lay jël na utiliser ko xam nga ay ay saaga mais nit ku jàng nit ku instruit du am assez d' espace si xelam ba mu fay construire ay saaga voilà moom ay thème ay théorie ay calcul ay affaire yu claire moom mooy nekk si boppam parce que moom loolu la xam yaa ngi donc xam-xam lu si wax de ah maa leen xam-xam non ay xëm-xëm ngeen am xëm-xëm xëm-xëm xëm loolu ngeen am. comme boog nag foofu noonu Christophe Colomb man foofu laa yemoon ak yow quoi affaire bi du rap-rap rap-rap bi nii nee naa la su yàggee di nga bëgg sa yaay en tout cas en attendant nu def noonu ba si beneen waxtaan dégg nga Christophe. soo raccroché wool sa yaay nga nuyul ma ko nga ne ko maa ngi koy siyaar di ko ñaanal dinaa yow tamit sax maa ngi lay ñaanal ah yàlla na la yàlla soppi yàlla na la yàlla def nit yàlla nga nite yàlla nga ximmaliku waaw yàlla yàlla musal si musiba ak balaa tamit loolu baax na si yàlla na la yàlla musal si ñuuri tekki xolal borom ñaari nopp yu yóbbaate àddina waaw yàlla na si yàlla musal voilà yàlla na la yàlla aar yàlla yàlla def nit yàlla na yàlla giddi si lu nga ne voilà man moom. comme ni may waxee rek ñun ragalunu loolu yal na yàlla aaraale bépp doomu aadama bépp doomu julit bépp chrétien bépp mala bépp yal na yàlla aar tout le monde na yàlla jël ñaawteefu bépp ñuuxit sax tous ces insulteurs doomu xaraam yi jox ma ko ma sottil leen ko nii yiw delloowaat ko seen ndey ngeen bàyyi seen kër yi yal na yàlla sàmm seen yaay yal na yàlla sàmm seen yaay te yokk leen xolu muñ yal na yàlla sàmm seen baay yal na yàlla sàmm seen baay te yokk leen xolu muñ ay eh waay yàlla na yàlla gën a ci dolli nu xolu sutura ba nu mën a taxawal diine gi taxawal diineem bii munu yónnee fii si kaw suuf continuer di ko waxal ba ñu si wala dégg dégg ko ba nu si wala jot jot si yàlla na nu yàlla may tamit xolu taxawal suñu askan man may nu xolu taxawal suñu dëkk bii waxal leen ba bis bu nu yàlla di dagg suñu laami ñuy yóbbu incha allahu rabbi maanaam ni ko amuñu armée amuñu ay milliards amuñu kàttan bu ñuy ñëwee di song ñëpp xeex te yàlla bàyyi nañu fi suma làmmiñ dinañ ko utiliser utiliser ko à bon escient ba ñëpp ñu si wala mën a jëfandiku nu si mën a dégg loo xam ne ni que dina leen jëriñ ku si nekk daal di si dégg loo xam ne dina ko jëriñ lépp loo xam ne ni que nag wax nañ ko fi te du loo xam ne que day jëriñ mu nekk lu bon mu nekk loo xam ne que baaxul maa ngi leen di jéggalu di leen jéggaluwaat encore di leen xamal ni que bon ama sama sama nite la rek sama bonteeg sama toroxaay lay wane ni que nit nit kese laa di leen jégalu si loolu lépp lu si baax nag lépp lu ngeen xam ni ko kontaan ngeen si waxtaan bi rek te mu nekk lu baax maa ngi leen di ñaanal yàlla na ko yàlla def yiw gu bëri yàlla na ko yàlla def yiw gu bëri sotti leen ko sotti ko seen njaboot sotti ko seen i àndandoo sotti ko bépp doomu aadama lépp lu yàlla sàq yàlla na ko yàlla attee si yërmandeem nu def noonu ba si beneen waxtaan beneen live beneen vidéo te di comme nu ma koy waxee rek ñu nekk si hôpitaux yi ndeysaan souvent damay ñaan xam nga soo waxee lépp wax nga lépp tamit xam nga mais souvent tamit di leen fàttaliku rek jaar si ñoom dafa baax ñu nekk si hôpitaux yi xam nga waaw suñu xol a ngi suñu xol suñu xel suñu lépp a ngi si yéen xeex bi ñuy xeex sax tey jii nii tey waaw mën naa ne yéen a ko war a parce que suñu sañoon hôpitaux yi jaar si yoon coono bii ngeen tëddee foofu mu gën a oyof wala xam nga nu mën leen a toppatoo si kaaraangee yu ngeen xam ne que yu war ak yu jaar yoon garab yu ngeen di soxla mu mën a accessible xam nga dëkk bi ku si nekk mën a am au moins couverture médicale am santé xam nga éducation xam nga donc daal yéen ñi nekk si biir euh, hôpitaux yi yal na yàlla làmb seen bopp ba ngeen jug ngeen fekk jiwaat seen njaboot fekk jiwaat seen liggéey ñëwaat bokkaat si société bi ñu nekkaat encore ay frères et sœurs tàppante ree xam nga dund àdduna quoi ñu nekk si kaso bi tamit te nga xamni ko du len toy tooy caabi ya seen gannaaw yal na len yalla mayat sen bop ngeen daal di génn ñépp nag nu ngeen xamni ko tamit nak mom nu nu nekké si kasso bi ñom ñoko def yal na len yalla soppi wa ba bis nu genné si kasso bi bu nu ci delu wat mama bu nu delu wat ba di dugar sax ci bi kasso bi quoi wa légui tamit sama mbokk immigré gaay yi si yoonu suuf ci gaay yi nekk si gaal yi instant bi xam nga gaay di ki na len yalla sam yal na len yalla sam dina len gis ngeen de lii moo tax ngeen di daw lu mooy ay mag yoo xam ne ni que tey ñoo ngi si dëkk bi bëggu noo jël seeni responsabilité pour que ndaw yi daa di mën tamit bokk si dëkk bi liggéey toog di leen seetaan nekk ay naaféq di woote ay affaire yoo xam ne kenn xamul moo leen yóbbee tey ngeen bàyyi seen askan bàyyi seen dëkk bàyyi seen lépp dugg si désert bi tey amaana yéen a ngi si diggante dund ak dee yéen ñëpp ku si nekk fu ngeen munti nekk yàlla na leen yàlla sàmm ba fu ngeen jëm àgg fa ak jàmm ak salaam yéen ñiy nekk si ndox bi tamit yàlla may nu ngi koy waati waaw jéggeeg salaam yàlla bu kenn des suñ ndox yi parce que keroog dama am benn témoignage boo xam ne ni que daf ma daf ma laal am koo xam ne ni que daf ma woote ba mu ma wooye wax teg affaire man nu mu def sax ba di seetaan laay ba di kii affaire daf ma jaaxal nekk si biir ndox bi nekk si gaal yi di seetaan laay bi jour boobu j'étais tellement euh, ému dama ému ému ému ba nga xam ni que mënumaa léegi live sans ñaanal leen quoi parce que lu ñuy dund dafa metti lu ñuy dund dafa metti yàlla na leen yàlla sàmm yàlla na leen yàlla sàmm àggal leen ak jàmm ak salaam te yàlla ngeen doon tamit les derniers yuy jàkkonteel lii yuy dund lii yàlla bu mu amati suñuy doom ñaanu nu dund lii suñuy doom yàlla bu nu dund loolu suñuy doom yàlla bu nu jaar si loolu te ñaananu suñuy doom jaar si loolu ñu def noonu ba si beneen waxtaan beneen live peace love and harmony ciao